Au niveau du marché de aux de Kaolack Le torchon brûle au marché central au poisson de Kaolack. Les mareyeurs accusent le concessionnaire et l'administration d'être à l'origine des difficultés que traverse le marché. L'usine de fabrique de glace ne fonctionne plus. Les de jet d'eau sont tombées en panne, des factures impayées. L'AMPOC, l'association des utilisateurs du marché, interpelle la tutelle. Le directeur par intérim du marché rejette toute accusation. Le riz est arrivé à maturation dans des euh, fermes de Kédougou, 80 hectares déjà en Blavie. La récolte communautaire a démarré hier lundi. Le gouverneur de la région euh, plaide pour le positionnement d'une moissonneuse batteuse à Kédougou. Et puis la journée mondiale de la prévention des catastrophes naturelles célébrée euh, ce 13 octobre au Sénégal. Les risques de catastrophes tournent autour des inondations, la sécheresse et l'érosion côtière. Un dispositif national de gestion des catastrophes et mis en place, mais son application peine à être effective

fanweeri simili benn tegu ci juróom benn waxtu salaamaaleykum El Hadj Malick Ndiaye waaleykum salaam wa rahmatulah fa ñuy tàmbalee xibaar yi li ñu yaatal gi juróom-ñaari waxtu lay doon mooy foofu ca Kaolack ca marché poisson ba foofu nag euh, sagara ngay xeeñ ci marché poisson central bu Kaolack li ko waral ay jafe-jafe ñu ci jànkonteel ñu jox baaraamu tuuma kii nga xam ne rek moom moo nekk concessionnaire bi ci ñàkk jumtuwaay nga xam ne jël na ko yëpp jël nañ ko ci ba tey ci wàllu xibaar lañ fas yéene faram bi ñuy war a màggal tey yem a fukki fan ak ñett ci weer bi ñu nekk fii ci Sénégal nag yëf yi kat war nañ koy gën xel lu ci mel ni wàllu mbënd meeg li ni mel tàggat yaram li ci gën boobu di fàttali ñaari équipe yëpp ku ci nekk jël nga say matuwaay da ngeen sax kii di Corentin Martins buy coach euh, wax ne kat ñoom ni dañuy jouer sans complexe seen diggante ak Sénégal match boobu nag mu ngi am ginnaaw ba Sénégal nag ñàkkee jël bu métti diggante moom Maroc ñetti bal ci benn loolu àjjuma la amoon Maria. jërëjëf El Hadj Malick Ndiaye ñaari waxtu incha allah ngir yaatal gi. Leader incontesté de la location de voitures et du transport touristique, Sénécartour a toujours accompagné l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique. Sénécartour

Euh, parce qu'on ne l'apprend pas euh, dans les écoles de euh, parti. Qu'est-ce qui barre la une de Direct News? Incitation à la violence ethnique, le député Aliou Dembourou Sow sème les germes de la division, aucune condamnation, aucune désapprobation venant des autorités. À la une de Vox Populi. Nos confrères de Vox Populi nous parlent de euh, d'Ousmane Sonko qui nous parle aujourd'hui de mafia du foncier, nouvelle salve de Sonko sur le maquis, il accuse le président de faire du business foncier et d'avoir vendu les immeubles immeuble de l'État au centre-ville. Ousmane Sonko qui évente un gros deal, titre nos confrères euh, du quotidien l'AS. Nos confrères de tribune parlent aussi de ce deal éventré au sommet, euh, appartements à Terme Sud et des immeubles en centre-ville vendus. Nos confrères nous proposent tout un dossier sur la départementalisation de Keur cette grande équation selon nos confrères. Nos confrères nous parlent de cette campagne arachidière 2020, la hausse du prix au producteurs en vue. À la une du soleil. Macky Sall et Xi Jinping revigorent leur pair, c'est notamment euh, concernant la coopération économique sino-africaine. Pour terminons par nos confrères du quotidien du sport au stade qui reviennent sur ce match amical euh, Sénégal-Mauritanie prévu à partir de 19 Pour nos confrères, c'est un chaud derby à Thiès. Sénécartour di société bi ñu gën a ràññee ci wàllu location auto ak dem beeg dikk bi ci wàllu tourisme ci guunge réewum Sénégal développement Sénécar Tour gis-gis bu bees ci wàllu dem beek dikk bi. Sénécar Tour moo leen di may. li gën a fës ci këru yéenekaay yi. talaata fukki fan ak ñett ci weeru octobre 2020 salaamaaleykum ajaratu Ndeye Marie. maaleykum salaam si suñuy wóom rek tàmbaleeg Sud Quotidien. Sud Quotidien tey jii daal ñëwaat nag ci yenn ci coow yoo xam ne ñoo koy nemmeeku ci ñiy yëngatu ci wàllu politique lañ ca gën a gis moom mooy ne coow loolu coow lu ñàkk fayda te nag loolu warul ñi nga xam ne tey jii ñoom ñoo bëgg a jiite nekk wala ñi nekk Thiam nekk docteur en communication euh, politique. bu di ñëwaat ci ay kàddu yoo xam ne kii di Aliou Dembourou Sow nekk ab député moom moo ko daal di fësal kàddu yu tegginiwul yoo xam ne daal mën na yee fitna suñu naataango yi nag di gis ne amul kenn ku ko naqarlu ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite réew mi. bu ñu xoolee Vox Populi. Vox daal di gis ne kii di Ousmane Sonko fësalaat na yeneen kàddu jëmale ko nag ci ndoddu Macky bi pa moom ma ngi ko jaarale ci mbaalu coowal marque goo xam ne nag moom moo am ca terme sud ak tamit yenn ci ay jumtukaay yoo xam ne nguur gi moo ko mm, moom tribune tribune nañu kon kii di Ousmane Sonko bu ñu yëree l'enquête enquête yenn kaay tey ji a yi di ñëwaat ci ndax mën na nekkam déet waa grand place lu xëyee di ñu xamal ne suñu maytuulee njëgu gerte gi ci wàllu campagne gi nga xam ne nag moom la ñu euh, dëgmal mun na am ñu daal di koy yokk ba nit ñi di producteurs yi nag daal di ci gis seen bopp. Mm, bu léegi euh, foofu la soleil. le soleil di ñëwaat nag ne ci euh, yi di Macky ngi def seen kéem kattan ngir li ni mel war mm, di stade yéenekaay. stade yéenekaay di ñëwaat a am tey wàllu ndaje boobu suñu gaynde yi war nañoo am na ak li ñuy tuddee orgueil maanaam daal jom goo xam ne euh, moom mooy tax euh, ba seen match boobu ñu am ci ndam mun a fàttali nit ñi nag euh, défaite gu métti gi ñu amoon ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Maroc. xam nga kan la koy kan kan lañu war a dimbali. kan si El Hadj Malick Ndiaye <laughs> defet ko torop <laughs> kon yal yàlla may ndam tey ay ci ajaratu Ndeye ci kanam incha allah ñu euh, jox la dig daje 7 h li nga ne moo di revue de presse. inséparable de l'info. Sud FM en mode majeur les temps changent et le monde bouge Sud FM. et le monde bouge Sud avec. Sud FM l'inséparable de l'info là où vous êtes Sud vous y trouve.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 Bienvenue dans ce journal de euh, l'économie. Plus de quinze ans après la mise en œuvre de la loi portant orientation des transports terrestres, le secteur reste confronté à de nombreuses difficultés qui sont entre autres une gouvernance institutionnelle très faible, un secteur désorganisé avec une pluralité d'opérateurs privés de syndicats, une insécurité routière préoccupante. Fort de ce constat, le ministère des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement a initié des réformes en vue de la modernisation du secteur des transports terrestres. Un atelier de partage sur ces réformes avec les collectivités territoriales s'est tenu ce lundi où Mario, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement que nous écoutons. Nous pensons qu'au sortir de cet atelier, des conclusions importantes sur l'orientation des réformes à engager, notamment sur euh, le domaine routier, les réformes sur l'entretien routier par le e un bon collaborateur des collectivités territoriales mais aussi tout ce qui se fera sur la gestion des gares routières, sur la, particulièrement les gares routières publiques, oh, seront enrichis des échanges, de la contribution, des recommandations de ces acteurs politiques majeurs pour nous permettre de réussir la réforme. Dakar ne peut pas être une exception si nous voulons faire de Dakar une ville attractive avec un plan d'urbanisation réussi où il fait euh, bon vivre avec euh, la qualité de l'air, la lutte contre les encombrements la congestion automobile, nous devons nous parler entre les différents acteurs. J'ai dit il y a une multiplicité d'acteurs au niveau de Dakar. Il y une diversité de ses vocations dans un territoire le plus petit, hein, la plus petite région en termes de superficie, mais la plus grande en termes de capacité économique, mais aussi de capacité sociale, qui nécessite des transformations euh, que nous devons engager ensemble sous la supervision, bien sûr, des gouvernements, mais j'ai rappelé que les collectivités territoriales sont des démembrements aussi de l'État. Ensemble, l'État, dans son entièreté, nous devons trouver des solutions qui sont des solutions dynamiques permettant justement euh, de lutter euh, contre ces problématiques et ces défis que nous rencontrons sur lesquels je pense que l'expertise ne manque pas. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre journal de l'économie. banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, par Khadisen et côté de Fatick euh, où cinq districts sanitaires ainsi que la région médicale ont été équipés en kits sanitaires et ça pour appuyer la riposte contre la Covid-19 dans cette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 Bonjour à tous. Wetlands International appuie cinq districts sanitaires de Fatick et la région médicale en kit sanitaire, plus une enveloppe de 3 millions pour soutenir les efforts de l'État dans la lutte contre la Covid-19. L'ONG a choisi des relais communautaires pour dérouler une vaste campagne de sensibilisation dans ces zones d'intervention. Yahya Gueye au bureau de Wetlands à Fatick au micro de Ngor On a assisté à la cérémonie de remise d'un kit, on l'a appelé un kit sanitaire de lutte contre la pandémie euh, à la covid Donc c'est un partenariat qui est né entre Wetlands International, Afrique, Côte Occidentale, Golfe de Guinée et l'UICN à travers un appui de l'Union Européenne. On a écrit un plan d'action pour un peu orienter nos interventions dans le sens de la communication vers un appui aux efforts de l'État dans la lutte contre la pandémie. Donc c'est dans ce sens que nous avons euh, pu mobiliser près de 10 millions de francs de Fatick. Ces districts sont les plus touchés par les cas positifs et les cas de décès liés la Covid-19, d'où la le renforcement de l'engagement communautaire. parce que euh, sont les districts qui, au niveau même des résultats des de la région, c'est le département de Foundiougne et de les deux bien sur les cas positifs les décès. Donc, je crois que c'est un choix pertinent qui est en, en, accord avec la politique de la région même qui nous mettons vraiment le focus sur ces, ces, ces districts pour qu'ils euh, renforcent l'engagement communautaire. Je, on ne peut pas demander plus d'engagement communautaire que ces appuis qui vont aller vers la communauté. C'est vraiment un choix très justifié et nous pensons que les districts vont utiliser vraiment cette aide de façon efficiente pour la communauté, pour qu'on puisse combattre cette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 Sud FM Sud FM seen rajo. Sud FM en mode majeur les temps changent et le monde bouge Sud FM avec Sud seen rajo.

Le torchon brûle en tout cas au marché central aux poissons de Kaolack. Les mareyeurs accusent le concessionnaire et l'administration d'être à l'origine des difficultés que traverse le marché. L'usine de fabrique de glace ne fonctionne plus. Les machines du jet d'eau sont tombées en panne, des factures impayées. L'AMAPOC, l'association des utilisateurs du marché, interpelle la tutelle. Le directeur par intérim du marché rejette toute accusation. Le riz est arrivé à maturation dans des fermes de Kédougou, 80 hectares déjà emblavés. La récolte communautaire a démarré hier lundi. Le gouverneur de la région euh, plaide pour le positionnement d'une moissonneuse batteuse à Kédougou. La journée mondiale de la prévention des catastrophes naturelles célébrée ce octobre au Sénégal, les risques de catastrophes tournent autour des inondations, la sécheresse et l'érosion côtière. Un dispositif national de gestion des catastrophes est mis en place mais son application euh, peine à être présidentielle aux États-Unis 10 euh, millions d'électeurs ont déjà voté. Merci à vous Babacar Sam. Le développement de tous ces titres, c'est juste après ceci. Bonjour et bienvenue chez merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer le torchon brûle au marché euh, central au poisson de Kaolack ou l'association des utilisateurs du marché central au poisson donc euh, UMAPOC euh, ou AMAPOC accuse le concessionnaire et l'administration d'être à l'origine des difficultés que traverse le marché selon ses mareyeurs l'usine de fabrique de glace et des machines du jet d'eau sont tombées en panne et ne fonctionnent plus des mareyeurs également dénoncé le recrutement abusif de 65 travailleurs et des arriérés de factures d'électricité. L'AMAPOC interpelle le ministre euh, de la Pêche sur la situation. Euh, Atou euh, Ndiaye, premier vice-président de l'association des utilisateurs du marché central aux poissons donc de Kaolack est chargé de la communication de l'AMAPOC au micro de Mamadou Camara. Euh, Atoundiaye, euh, que nous écoutons, il est le premier vice-président de l'association des utilisateurs du marché central aux poissons de Kaolack. Il est également chargé de la communication de l'AMAPOC. Il est au micro de Mamadou Camara. Euh, les machines du fabrique de glace qui est en panne, 17 ans d'existence, sans ratification, sans vérification, sans rien. Une machine qui roule 17 ans, vraiment il devait y avoir une épargne pour cette machine-là, pour que si il est tombé en panne, on puisse réparer. Mais depuis 17 ans, les machines sont en train de rouler. Il y avait un directeur, Serge C'est Madame le maire qui est responsable de tout cela. C'est elle qui, devait fixer les le marché central au poisson. Le concessionnaire du marché central au poisson de, de, de il n'a pas fait son travail. voyez les routes impraticables. Tout cela, c'est à, cause du concessionnaire. Les, ventes parallèles. Là-bas, il y a des ventes au parallèle au, au De la Pêche et au président de la République de venir secourir le marché. Car l'État n'a jamais fait un jour depuis l'État n'a rien fait sur ce match-là. Nous l'État parce que actuellement le Sotodo, parce qu'il y avait trois machines fonctionnelles, maintenant il ne reste machine. Les marieurs sont en de payer leurs taxes car les tabliers payent par jour, les, les, les par jour, les moulineurs 150 francs par jour. Où est cet Le gouverneur, on l'a correspondant. Le préfet, on l'a correspondant. Le maire lui-même. Toutes les autorités ont reçu nos correspondants. L'actuel directeur qui est c'est un intérimaire. Il a fait maintenant un un an et cinq mois, le match se sans directeur fixe. 65 personnes sont actuellement employées par ce marché. Vous voyez ce petit marché-là qui ne fonctionne que poisson. Tout le recette du marché, c'est le administrative qui osent amener 65 personnes pour les payer chaque, chaque fin du mois, ça c'est Atou Ndiaye euh, premier vice-président de l'association des utilisateurs du marché central au poisson de Kaolack euh, l'association donc qui accuse le concessionnaire à l'administration d'être à l'origine des difficultés que traverse le marché des allégations battues en tout cas en brèche par le directeur par intérim du marché central au poisson de Kaolack selon Cheikh Ndaw euh, il travaille avec des machines vétustes Toutefois, des efforts sont en train d'être faits pour gérer la situation. Cheikh Ndaw, directeur par intérim du marché central au poisson de Kaolack, s'explique euh, au micro de Mamadou Camara. Eux, c'est les utilisateurs du marché au poisson de Kaolack, c'est des mareyeurs. Moi, je gère l'administration. Le château d'eau fonctionne normalement. C'est l'usine de glace qui a des problèmes. Et l'usine de glace est installée depuis La dernière rénovation qu'on a faite, qui a fait que les deux derniers mois, au mois de juillet août, on a noté deux pannes. Les deux pannes, on a dépensé 7 441 000. Lorsque les machines ont redémarré, euh, en fin septembre, une nouvelle panne est déclarée. Jusqu'à présent, les machines n'ont pas encore démarré. Mais la panne a été détectée et réparée. Maintenant,

le départemental de la pêche, Cheba, le responsable technique du marché. Par la suite, le 28, on se réunit encore dans mon bureau avec les deux techniciens pour vraiment diagnostiquer l'ensemble des problèmes qui existent au niveau du marché. Ces problèmes ont été notés. Lorsqu'on fera un autre conseil de gestion, les problèmes seront mis sur la table et le conseil va décider de tout ça. par rapport au recrutement, chaque directeur a le droit de ces éléments du conseil de gestion, aussi bien au, au niveau des autres services, euh, régler l'ensemble de ces problèmes-là. Avez-vous des arriérés de factures par rapport à l'élection Ça, c'est depuis l'avènement de Daouda Faye. Hein. Mais euh, je vais en profiter pour remercier euh, la Sénélec qui nous a compris et qui nous accompagne, notamment son délégué Les Amazones de Castor se lèvent pour la réhabilitation de l'école Ibrahim Seck. L'établissement est dans un état de délabrement très avancé. Il est, euh, et même hein, donc surnommé école Mbalit par les élèves qui ne veulent plus la fréquenter. Ces Amazones ont besoin d'un montant de 6 millions de francs CFA d'ici la rentrée des classes. Elle interpelle en tout cas les autorités locales, euh, les autorités étatiques également. Euh, euh, euh, c'est pour donc que aussi et des bonnes volontés pour que l'établissement scolaire soit réfectionné da nga leen di wax sax mu ngi koy tuddee école mbalit yow une école délabrée une école délaissée l'école élémentaire Ibrahima Seck est même stigmatisée car elle a été rebaptisée école mbalite une honte pour les élèves de la localité qui refusent de la fréquenter. Cette situation fend le cœur des Amazones de Castor qui se lèvent pour mener le combat de la réhabilitation, de la rénovation, mais aussi de la construction d'un centre d'enseignement professionnel dans l'enceinte de l'établissement. Ces Amazones qui ne peuvent supporter cette situation, d'où ce cri de cœur de leur présidente Rokhaya Diop. Ça, c'est déplorable. Elle est dans une situation excessivement désastreuse. l'école est abîmée. Il y a des toilettes pour euh, des enfants qui n'ont de nom que de fessées. Les classes d'il y a 50 ans sont restés identiques. Aucun changement. Les tableaux qui, qui étaient ici il y a 50 ans, ces Ce projet est désormais porté par l'association Castor 3D qui en fait son cheval de bataille. Ainsi, les Amazones interpellent les ministres de tutelle, les autorités locales, les bonnes volontés et les valeureux fils du quartier pour trouver le financement de la première phase estimée à 6 millions d'ici la rentrée prochaine. Nous lançons un cri de cœur aux autorités étatiques. Nous avons pris audience avec le maire, aussi au fils de Castor pour la réhabilitation totale de cette école parce que nous voulons le pavage de cette école. Nous voulons reprendre les murs, mais surtout les salles de classe. Il n'y a pas de bancs. Vous vous rendez compte, monsieur, il y a des bancs où il y avait l'encrier. Ça, ah c'est à l'époque, notre époque. Ça, c'est inadmissible. pétitions et une forte mobilisation sont pour le moment les armes de ces Amazones décidées coûte que coûte à changer les choses et à faire revivre l'école de leur enfance, elles qui ont pour la plupart effectué leur premier pas de potache dans cette école vieille de plus de 50 ans. Amadou Moustapha jin le riz est arrivé à maturité dans les fermes euh, euh, donc euh, dans des fermes de Kédougou où des jeunes et femmes ont emblavé au moins 80 hectares. La récolte communautaire a démarré hier lundi. Le gouverneur de la région y a pris part et il soutiendra porter le plaidoyer pour qu'au moins une moissonneuse batteuse soit positionnée à Kédougou. Boubacar Tamba. Faute de moissonneuses batteuses et pour ne guère perdre une partie de la production, des jeunes et femmes ont organisé ce lundi une moisson communautaire du riz dans les fermes 1 et 2 de Kédougou. Des envolées lyriques et sons du Séoroba pour stimuler les centaines de travailleurs étaient de la partie. Serre Ndao, le gouverneur de Kédougou, a les maires dans ça pour que l'accès à la possible. Donc nous avons vu les champs, nous avons vu les superficies, 80 hectares qui sont emblavés. Je pense que c'est important. Et là, des engins, il faut des matériels agricoles, des machines pour pouvoir récolter et cultiver Nous allons mettre tout notre possible pour que, avec euh, Monsieur le ministre de l'Agriculture, parce que nous allons transmettre ce qu'on a ici, faire le plaidoyer auprès du ministre de l'Agriculture, mais aussi de la Sodagri et toutes les autorités qui peuvent nous accompagner pour qu'à Kédougou, qu'on puisse positionner une moissonneuse batteuse à Kédougou. Ça permet un peu de faciliter les travaux champêtres par rapport à la culture du riz, mais ça encourage les gens à aller vers l'agriculture. Et nous, pour augmenter l'agriculture. Nous voulons que les gens allient les deux. L'orpaillage arrête trois mois, on va cultiver. Après la culture, on revient vers l'orpaillage. Voilà les deux leviers qu'il faut actionner pour booster Kédougou et pousser Kédougou vers le développement. À Kédougou, il est de plus en plus question de l'avancée du front agricole. Les autorités administratives en ont fait un sacerdoce. Boubacar Tamba Kédougou, Sud La journée mondiale de la prévention des catastrophes naturelles célébrée ce 13 octobre au cours des 20 dernières années entre 2000 et 2019 donc 7348 catastrophes naturelles ont été enregistrées dans le monde pour un coût évalué à près de 3000 milliards de dollars révèle le Bureau des Nations Unies pour de catastrophes dans un rapport publié hier un rapport qui signale euh, que personnes depuis 2000. Les pays en développement représentent 23% du total des décès dus aux catastrophes. La Chine et les États-Unis sont les pays les plus touchés. Les catastrophes les plus fréquentes sont les inondations et les euh, tempêtes, des épisodes de sécheresse, des incendies et des températures extrêmement aussi causées des ravages. Ici au Sénégal, les risques de catastrophes tournent autour des inondations, la sécheresse et l'érosion côtière, dispositif national de gestion des catastrophes existe, mais son application peine à être effective. Sud International. Parlons de la Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé estime que laisser la Covid-19 circuler librement n'est pas une option. Jamais dans de la santé publique, l'immunité collective n'a été utilisée comme stratégie pour répondre à une épidémie, et encore éthiquement euh, problématique, a déclaré le patron de l'OMS en conférence de presse et puis euh, présidentielle aux États-Unis. 10 millions d'électeurs ont déjà euh, voté. C'est la fin de cette édition d'information, Maria. Merci à vous, Babacar Sam. On vous retrouve un peu plus tard, c'est-à-dire à 7h30 pour la seconde édition de ce bloc d'information. juróom-ñaari waxtu ci Sud FM seen rajo dellu di leen ziyaara di leen jaajëfal ci saxoo ngeen saxoo di ñu xibaar yi pàcc bu njëkk bi ci yaatal salaamaaleykum El Hadj Malick Ndiaye waaleykum salaam si Samaria ñu tàmbali ko foofu ca marché central au poisson bu Kaolack sagar nga xëeñ foofu noonu association des utilisateurs bu marché central au poisson bu Kaolack nag euh, moom euh, mooy joxoñ baaraam tuuma bi ne moom moo tax jafe-jafe daa daal di a yaatoo xabaar fas yéene faram-fàcce ci wàllu xibaar bokk na ci nag lépp loo xam ne jëm na nag ci wàllu tàggat yaram tey ji match bi Sénégal war a amal ak équipe bi nga xam ne moo nekk Mauritanie jëm ci jongante xaritu boo xam ne kat mu ngi am ginnaaw ba Sénégal ñàkkee nag diggante ma Maroc ñetti bal ci benn dañuy fàtte xibaar bitim réew Alioune Badara Socé moo nekk ci wàllu xarala. waaye ca bu ñu taaxee loo moom El Hadj Malick mu yaatal sagar ngi xeeñ ca marché central au poisson bu Kaolack association des utilisateurs bu marché central bu Kaolack nag joxañ baaraam tuuma concessionnaire bi nee kat moom moo tax jafe-jafe yi daal di am bokk na ci nag matériaux yi nee nañ kat bi bi defar glace ak tamit machines yi wàllu ndox mi nag yëpp dafa taxaw dara doxatul foofu noonu ñu déglu ci loolu kii di Pape Ibrahima Diaw moom moo yor chargé de mission Euh, nekk tam président des mairies bu Sénégal ci micro Mamadou Camara. te marché bi convention bi moo lié concessionnaire bi ak marché bi te convention bi li mu wax dafa leer article bi nga xam ne mooy article six dafa wax ne lépp loo xam ne ouvrage la te mu nekk ci marché bi concessionnaire bi moo ko war a sàmm moo ko war a defar article vingt et un bi dafa wax ne képp koo xam ne nii tey yaa ngi ci marché bi te liñ la dénkoon defuloo kon état dafa war a récupérer marché bi ñu seet ko ko jox wala mu yoral la doon doxee trois yëpp panne tali pour nga ñëw ci marché bi da def une de temps pour nga mën dugg ci marché parce que dafa amoon aller am lépp sakk nañ ko joxe nañ ko ay place jox leen dafa am ñaari groupe yoo xam ne ñoom ñoo war a yore marché bi muy conseil de gestion ak conseil de suivi conseil de suivi son président c'est le de de Kaolack te conseil de suivi boobu depuis 2003 bi ñu existé ba léegi ñaari yoon la conseil de suivi mas a am te conseil de suivi chaque année war nañ ko def benn yoon conseil de gestion chaque année war nañ ko def quatre fois depuis un an cinq mois benn yoon lañ def conseil de conseil muy benn ci région bi la bokk muy deuxième marché boo xam ne moo nekk ci Afrique à Dakar kon duñ seetaan ñu def ci ay milliards ba pare ñu retourné ay nit ñëw fii di ko yàq loolu parce que dafa am concessionnaire bu jox marché bi moom moo ko yore cahier de boobu ñu ko tegal bu fekkente ne moom matale wu ko kon état du Sénégal daf ko war a jël ouvrage yëpp yàqu na dara desu fi dara convention bi respecté wuñu ko yi nga xam ne ñoom ñoo fi mu wéetee parce que amul glace ku fi indi sa jën amoo glace dafay yàqu ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir marché bii nga xam ne suñuy glace tey chambre froide dafa arrêté parce que chambre froide dafa seer parce que chambre bi dañuy fay li fan lañ koy dugal nañ ko wax nit ñi deuxième bi ci topp booy tey usine glace bi ñi nga xam ne ñoo fi nekk dañuy dem di wër dëkk bi di jënd ay mbuusi glace beneen mooy usine glace bi ci boppam lañ ci marché bi dafa. dafa war a jeex ci biir marché bi loolu nag euh, kii directeur bi par intérim nag weddi na ko moom seet wet Cheikh Ndaw lay uyoo ñu déglu ko ci micro euh, Mamadou kamara panne am na fi mais panne bi nga amee kenn réparé laa déjà réparé mais machine nekkul da réparé rek mën a démarré mais dafa am matière première boo xam ne moo koy doxal lu mel ni huile lu mel ni calcium ak lu mel ni ammoniac ñaag bu amagul amoo ñaag bi la xaar pour mën a démarrer par rapport ak glace bi ñuy wax glace malgré que suñu usine doxul mais am na ñu ñu waxtaan ak am na ay camion glace ah, bi ñu ubbi leen ko wan leen ngeen camion ñu ñëw indi glace du fait que kenn ku nekk mën si gis boppam booy denc si jën nga mën a jënd glace mën ko conserver bu baax baax te amul njëriñ ci kii bi ak tamit wàllub euh, électricité bi tamit euh, da ngeen amee ay bor salaire parce que marché bi 2003 lañ ko sos 2003 bi ñu ko sos léegi am na personnel bu fi nekk personnel bu fi nekk buñ ne ñëpp 65 personnes lañ man loolu du ma jaaxal ñoom seen bopp am nañ fa ay ñoo xam ne ni ñu bokk si ñoom la 65 personnes yi ñuy wax personnel buy liggéey la ku am njëriñ ku amul njëriñ loolu lu ñuy xoolaat directeur moo am latitude recruter amul benn directeur bu fi mën a recruter te conseil de gestion jox ko ndigal euh, recrutement additif man gisuma ko fi donc problème marché central au poisson bu Kaolack mooy matériel bu amortir usine de glace moo tax bi paan yi amee ñun am nañ ay suñu projet yu dëgër yoo xam ne defar nañ ko am benn fabrique de glace déposé nañ ko au niveau du ministère le septembre on a rencontré le directeur de cabinet du ministère de la pêche en l'occurrence monsieur Fodé Fall ànd ak l'inspecteur départemental de pêche ànd ak le service technique bu marché au poisson bu Kaolack c'était dans le cadre xool nan la defaat ba marché bi mën a jógaat ñii di les amazones les amazones de Castor dañoo jóg taxaw bëgg nañ nag seen matuwaay yëpp dugal nañ ci lu toll ci juróom benn million dañ leen di wax sax mu école bu màgget ba yegg ci lool école bu yàqu yaxeet école élémentaire Ibrahima bi bile nekk fii ci Castor dem na sax ba ñu koy dàkkantelee école mbalit loolu lee di jur kersa ak gàcce ci xale yi Castor yi nga xam ne sax bëggatuñu benn yoon jànge ci boobu leen l'école lu nu mel nag moo yëngal xolu Amazon yi nekk ci Castor jamono jile leen doon dong moo leen soxal moo di ñu daal di tabaxaat école bi daal di koy yeesal rax ki dolli sax daal taxawal benn centre de formation professionnelle looloo tax fu mu nekk nii ñu tëgg seen i gémmiñ te di jooy bi la jooyu xool nañ ci déglu aji ndooy di kenn ci amazon yi. xool nañu daal ba gis ne école bi état bi nu mu mel daal neexuñu vraiment ñu jog ci nag ñun les amazones pour defaraat école bi dégradation école vraiment boo ko gisee da mer sax billaahi vraiment. parce que lii école Arantoul yëpp ñu bii moo ci gën a ñaaw moo ci gën a bon nu mu mel ni état bi dégg vraiment c'est déshonneur loolu mënatuñ ko supporter ñu projet bi lee amazone castor yi lee wéetuñu si ndax kat waa association castor 3D ñëw nañu feelu leen ci xeex bi looloo tax fu mu nekk ni le ña ngay woo ministère de tutelle yi autorité locale yi moo xam maire bi ak ñu mu àndal niki noonu bépp doomu castor boo xam ne am nga ndombu tànk wala teg nga dara ci réew mi te nga jaar ci école bi nga daal di ñëw dimbali leen ngir ñu yeesalaat école bi li fi ak école di ubbi koppar yi nga xam ne war nañ ko ci dugal toll na ci juróom million. dinañ gis le maire dem ci autorité yeneen ñu yeneen gis ministre bi ñu ngi ci daal ñu ngi ci taxaw nañ ci daal vraiment ñu hmm. daal fu ne nii moom suñu objectif mooy loolu bugg nañu daal lu ñu ci wax nii ñu am ko avant le douze balaa xale yi di ñëw au moins wax leen état école bi soutien ci ñoom vraiment ñu jàppale ñu hmm. waaw ñu defaraat suñu école ay gisee gotaayu waxtaan ay audience ay pétition ba ki sax mobilisation bu am doole yooyu le ñooy gànnaayu yi nga xam ne l'école bi lee l'école bi nga xam ne lépp ci ñoom fii lañ tàmbalee seenum njàng juróom fukki at ci ginnaaw a ngi nii Amadou Moustapha Dieng ceeb bi nag ñor na bu baax ci ferme yi te ak ferme 1 euh, ak ferme 2 ci Kédougou yi nga xam ne nag euh, door nañu toll ci rek récolte communautaire bi door na démb gënnaru région ba nag bokk na ca bokk na ca récolté waaye bëgg-bëgg mooy leen rek la fexe bi def kéem tolluwaay kàttanam ba ñu am moissonneuse batteuse dañ ci ànd kii di Boubacar Tamba. ñàkkum masinu googukaay ak ragal a lu bari ci seen am-am moo waral ndaw yeeg euh, jigéen ya béy ceeb ci ferme une ak deux woote woon askanu tund moomu yépp altine ji ngir mën a góob ceeb bu njox mi ndax ñu mën a génn sawarloo liggéeykat yi bokkoon na ci lii. Saer Ndao may gouverneur wu diwaanu Kédougou ci boppam ak ay ñoñom teg nañ ci seen i bët. ñu gisee jigéen ñi sawar ci ndaw ñi sawar ci war nañu ñun tamit def loo xamante ni dina leen gën a yombalal liggéey te bu soobee yàlla dinañ taxaw ci loolu ba gu am benn moissonneuse batteuse mais aussi ñu gën a accompagner parce que li gën a am solo mooy li nga wax sànq mooy production de semence bi loolu moo am solo parce que semence. ci surtout ceeb ba semence bu baax bi dafa jafe mm-hmm. boo amee kuy def multiplication multiplication semence dañ ko war a encouragé gunge ko te bu soobee yàlla loolu dinañ ci taxaw teg ci suñu tànk parce que nekk te tey kenn du ñu li ndax ñoo gisal suñu bopp mm-hmm. ku ni liggéey amul rek da ngaa bëgg lu liggéey parce que àll bu mel nii ay jigéen nekk ci di def lii ay ndaw nekk ci def ni kon liggéey am na fi mm-hmm. euh, mbay mooy loo xamante ni ba àddina yi tukki du fi jóg te mën na yor am réew maa ngi wax léegi DRDR naka lañ mën a defee ci nu mu gën a gaawee ba ñu am mooy yu leen gën a jàppale te loolu aussi muy DRDR di autorité administrative yi préfet sous préfet gouverneur dinañ ci taxaw incha allah ba li leen war a accompagner ngir liggéey bi yomb dinañ ko def mënuñu tout le temps ñëw leen bay te du duñu gunge mm. ah nit ñi ci li yombal mbay mi bu ñu bëggee jeunes yi aussi ñëw si mbay mi il faut ñu fexe mbay parce que mbay mi liy defar Sénégal ëllëg waaye li ma wóote woon mooy liy defar Kédougou ëllëg ci mbay mi lay jóge kilifawu Kédougou yi moom suqali mbay mi doon na li nga xamante ni fasciné nañ cee xax seen tànk tubéy Boubacar Tamba doon cee jokkoo fi ci Kédougou xaaju Sud Afrique. Boubacar Tamba ñu wax ci ba tey ci xibaar tamit projet d' appui au développement de l' entrepreneuriat féminin et de l' bi ñu amaloon ab lël d' loolu nag ci finance euh, islamique mu ngi amoon foofu ci diwaanu Matam ngir ñëw teewee waxtaan bi nga xam ne moom lañ doon jagleel financement islamique euh, te waa PADEF EJ doon ko amal fii ci diwaanu Matam mu doon ab xeetu financement bi nga xam ne daanaka ñu bëri xamuñu ko fii ci diwaan bi bu ñu sukkandikoo ci kii di adjoint au di Maodo Ndoye nguur gi nag jël naa initiative yi bëri yu ci mel ni DER nga xam ne day yombal ay financement jigéen ñi yeneen projet yu ci mel ni ANPEJ ak PAPEJ ay PADEF EJ moo ñëw complété action yooyu yëpp nguur gi di def waaye moom mi indi ci tous foo xamante nii moom en fait moom moo ko yëyoo mooy fexe ba nga xam ne jigéen ñi dinañ am accès ci finance islamique finance islamique nag bu ñu ko waxee possibilité la bu nekkoon fii mais que jigéen ñi en tout cas exploité wuñ ko woon ba fii may wax ak yow nii. xeetu financement dañ ko jagleel jigéen ñi dong te mën naa dem ba juróom fukki million ci suñuy koppar waaye balaa ñoo koy jox day fekk nga yëngatu ci li nga xam ne dëpp naag l'islam ki nu xamal lu nu mel mooy ki jiite projet bi di Mansa Wali. ba financement boobu ci projet PADEF ñu ngi ciblé jigéen ñi. maanaam muy mag wala muy xale képp koo xam ne ni yaa ngi yëngu ci dara am nga sa soit ngay démarrer mën na nekk activité démarrage wala ngay activité d'extension maanaam nga am sa activité dem ba ci biir bëgg a yokk il faut ma leeral que ne aussi ñu ngi ci finance islamique mais sunu mbokk yi nga xam ne dañ nekk ci yeneen religion yi aussi dàquñ leen l'essentiel mooy activité bi ngay mëne mu méngoog l'islam bu dee koppar gi ñuy lebal jigéen ñi xaw naa takku lool teewul ne waa PADEF laaju ñu benn garantie pour jigéen ñi daal di mën a jot euh, seeni financement ñett façon catégorie la ñu na catégorie AGR activité générale de yoo xam ne ni financement yi mën na dem ba cinq cent mille catégorie boobu kenn loo laaj benn garantie donc lii laaj mooy nga préparer sa dossier andi say facture proforma sa carte d'identité ñu financer la maintenant deuxième catégorie bi nga xam ne ni mooy micro entreprise nga xam ne mën nañ dem ba euh, cinq millions ak euh, catégorie PME nga xam ne dañuy dem ba cinquante millions foofu am na garantie bu ñuy tuddee nantissement du matériel mu nekkoon Abdourahmane dañ koy door rek wàllu football ak tey jii jongante xaritu bu am ci ngeen Sénégal ak Mauritanie di match boo xam ne kat gaynde dañ ci war a rëccantiku 19 heures donte Stade Lat Dior bu Thiès ay doomu Gambie nag ñoo ko war a siffler ñu jàpp ne ñaari def nañ seen réglage démb amal seen galop d'entraînement ca Stade Lat Dior bu Thiès naka la Sénégal war a taxawee ci match bi ak yan joueurs la ñu war a indi laaj nañ ko Ndofène Fall nekkoon ancien international. mooy xam nga football moom sport collectif la day am day am déggoo déggoo moom mënu ko am fi mu ne ngir boo jàppee ñi nga xam ni mooy arrêt euh, central axe centrale bi ñi ko tàmm football yëpp nekkatuñ fa. léegi nii li ma yaakaar moom bu fekkee dafa bëgg euh, euh, a jaar ci njàll mi mooy fexe ba nga xam ni day am ay raccourcis mooy day jël axe bu mel ni ba ak Cissé nga xam ni ñoom ñaar ñoo bokk équipe ñu ngi joué Olympiakos ñoom ñaar mooy axe central Olympiakos loolu mën na koo xëy na may mu am ñaar ñoo xam ni déggoo nañ ci axe bi bu yaatee moo defoon moo def milieu de terrain waaye xam naa ni dana am ay jafe-jafe ci taxawaayam ngir équipe am ba ba saison bu ubbee ba léegi arrière central la fay football euh, loolu dana tax ba xëy na euh, mu mu mu jotaat euh, la nga xam ni noonu la daan footballé dana yéex boo seetee ci bii bi am na ci ay jafe-jafe jafe-jafe yi yu nag li ko indi mooy xam nga li nga tàmm di def suba gu jot ci sa équipe Euh, loola loola ngay gën a mëne euh, yaakaar naa ni nag euh, Aliou amul amul beneen beneen possibilité pour pour jouer loo ko feneen ngir ak gaañoog ñi nga xam ni ñëw ñi ñëpp yaakaar naa ni Gana lay indiwaat moom lay boolewaat ak ak ak Kouyaté mën nañoo takk nii Crépin yi di position bii ñu ko jox ci match bii passé defetul noonu parce que Crépin mi ngi joué excentré lay joué ci ci équipe bam euh, kon xam naa ni jafe-jafe yi Aliou am moo tax mu mu jekkalaat taxawaayam waaye euh, taxawaay boobu euh, boo ko seetloo tax na ba gisuñu Crépin bi nga xam ni moom lañ doon yaakaar. yaakaar yi après match amicaux yi xam tamit am na tey ji nii bokk na ci namit Mali ak Iran Japon Côte d'Ivoire Maroc RD Congo Nigéria Tunisie Maurit Mexique Algérie. Sénégal Mauritanie waaye nag diggante Guinée Gambie dañ ko annulé ak tamit Mali ak Iran dañ ko annulé ñu wax ci wàllu football ba tey ak tamit assemblée générale bu renouvellement bu stade de Mbour te war ko amal ñaar fukki fan ak juróom ci weeru octobre bi ñu nekk comité des supporters na mu ngi ñaawlu bu baax a baax li jëm nag ci yëf yi ni mu leerul dara nee nañ kat ñoom gisuñ seen bopp ñoom kat dañuy jàppale kii di candidat bi di Moussa Mbaye Alassane Ndiaye mooy président comité supporter du Stade de Mbour indi ci ay leeral ci micro Moustapha Sall. Euh, suñu bi nga xamante ne boobu ba léegi ñu ngi koy jàpp. ndax euh, bi ñu door a tàmbali ca mois de euh, juin juillet jàpp août ci lañ doon wax waxu assemblée général ñu jàppoon date bu njëkk bi le 12 septembre. bi ñu jàppee le 12 boobu ñu waroon am benn réunion bu ñu waroon tenir ak bureau bi mu waroon nekk le 22 pour tënk li nga xamante ne noonu la ñu demee AG mais ju le 22 boobu ba léegi ni réunion amul. te li waral déggoo bi ñàkk am yëpp. mooy bureau bi fi nekk bi nga xamante ne tey mooy bureau sortant bi ñaari candidat ñoo fa nekk ñoom dañoo bëgg a nekk juge nekk parti ñun nag dañoom parti boo xamante ne fa lañ bokk muy candidat Moussa Mbaye ñun foofu lañ féete mais dañoo seetlu yëf yi ba mu tàmbalee ba léegi côté yëpp dañuy léger muy am ay njuuj njaaj di ñu teg ay ndëgg sërëxal lu nekk ñu ngi ñu koy def boobu ba léegi ñuy nangu. ku xam supporter nag xam tàngam ak ak mën a xiiroom ak mën a xeexam ñu jóg bëgg yëngal suñu candidat nañu jaru ko. comme ñun ñëpp dañoo jóg pour liggéeyal stade de Mbour nañ leen bàyyi moom noonu mu seet point de presse nag lu mooy moom moom nga xam ne moo yor njaayum carte mi nga xam ne boobu ba léegi leeru ci yëf yi par parloo rek lañ ñuy def tey bu ñu defee li ñu nangu suba ñu defaat ñu leneen ñu leen rek nañ woote wallu lu ñu bëgg nag mooy carte yi na jóge ci ay loxoom parce que ñun amatuñ ci moom benn confiance wóolootuñu léegi nag duñ dem ba fii ñu xam ne carte yi ñu leen ci jiitu ñu bëgg a changer yëf yi am na loo xam ne ñun duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba ci loolu nag dañ ciy woo borom dëkk bi muy préfet di woo monsieur maire di woo commissaire di woo képp kuy autorité si dëkk bi pour ñu waxtaan ak ñii di woo président conseil départemental ndax tamit mënoo nekk juge à partie ñoom waa camp bële ñaari candidat yi ñoo lëkkaloo di xeex ak suñu candidat ñoom ñoo yor yëf yi ñoo yor élection yi ñoo yor carte yi ñoo yor lépp te dañ leen dañ leen koo nanguloon ci nag nag waruñoo nangu ñu ñu leen di gën a gore fukki simili ak. jërëjëf El Hadj Malick Ndiaye jaajëf ñuy ñu xaarandi match bi ah. sa match bi 19h. non match Sénégal bi. El Hadj Malick Ndiaye jërëjëf. Merci de nous recevoir chez vous. Si vous venez de nous prendre en cours, exactement minutes après 7 heures, vous suivez Sud Matin sur Sud FM Sen Radio 98.5 en synchro avec toutes nos stations régionales. Vous nous suivez aussi sur toutes nos plateformes ainsi que sur www.sudfmsenradio.com. Tout de suite, on retrouve Adjaratou Ndeye Marième Ndiaye pour la revue de la presse de ce mardi octobre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 Mbuurum ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 macha allah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire les établissements Mbaye et frères les boissons punch Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Les échanges de propos aigre-doux entre Mansour Faye et Ousmane Sonko et la sortie maladroite euh, du député président du conseil départemental de Ranérou appelant ses parents peuls à prendre des machettes et à attaquer ceux qui sont contre le troisième mandat du président Macky C'est comme qui dirait que la classe politique n'est pas en mesure de produire un discours d'une certaine hauteur. Et selon nos confrères de secteurs qui l'ont soulevé, comme l'a si bien souligné l'ancien ministre Abdou Aziz Tall sur les colonnes de Sud Quotidien le 8 octobre dernier. D'ailleurs, le docteur Momar docteur en communication politique et directeur de l'école des hautes études en information et en communication, a tenu à souligner dans le journal Sud Quotidien que ces échanges portent atteinte à l'image de l'homme politique sénégalais et dans la foulée, il a déploré la disparition des politique. Toujours dans Sud Quotidien, c'est notre confrère Abdoulaye Thiam qui demande à ce qu'on arrête Aliou Dembourou-Sow avant qu'il ne soit euh, trop tard. En effet, nos confrères nous rappellent que Sud Quotidien fait certainement partie des premiers organes de presse à avoir relayé ces propos, mais nos confrères ont pris la responsabilité de censurer la partie où ils demandent au peuple de sortir leur machette pour faire face à ce qui menacerait de brûler le pays par le fait qu'il a a déclaré sur cette même vidéo qu'avec le député Farba ils sont les seuls analphabètes qui siègent au sein euh, du secrétariat exécutif de l'Alliance pour la République, tout en précisant qu'ils sont capables de faire démettre un ministre ou le contraindre à revoir sa feuille de route. Cependant, nos confrères de Sud Quotidien sont surpris de voir que sa nouvelle sortie dans les colonnes de l'Observateur montre, euh, si besoin en était, qu'il ne se soucie guère consacré dans notre charte fondamentale. Toujours concernant les propos de Aliou Dembourou Sow, des propos qui, selon nos confrères de Direct News, sèment les germes de la division. Nos confrères ont noté qu'il n'y a eu aucune condamnation, aucune désapprobation euh, provenant des autorités. Et dès lors, nos confrères décrivent que le procureur et le président de la République et la communauté poulard sont interpellés. Ousmane Sonko revient à la charge et c'est pour le maquis. Sonko, nous disent nos partenaires de Vox Populi accusent le président Macky de faire du business foncier et d'avoir vendu les immeubles de l'État au centre-ville. Ousmane Sonko évente un gros deal, c'est le titre qui barre la une du journal LAS. Nos confrères d'ajouter que pour le leader de Pastef les concernant les hectares au niveau de Terme Sud, le régime a voulu disposer de ce terrain pour le projet Zéro Bidonville. En plus, l'État a vendu l'immeuble qui se trouve en face Eux aussi confirment que l'État a vendu 3200 appartements à Terme Sud et aussi des immeubles en centre-ville. Cependant, dans le journal LAS, le directeur de l'agence de gestion du patrimoine bâti de l'État, Yaya Abdul Khan, a démenti les affirmations d'Ousmane Sonko selon lesquelles des terrains appartenant à l'État du Sénégal sont en train d'être vendus. Il déclare que l'information est fausse. Sonko n'a pas été bien informé et n'a pas eu le temps de vérifier sa source car ce ne sont pas des cessions étudiantes. Ce sont des baux amphithéotiques qui ont été accordés sur certains sites de l'État dans le cadre de la valorisation du patrimoine bâti de l'État. Et nous parlons à présent avec nos confrères du journal Enquête de la départementalisation de Keur Une grande équation à en croire nos confrères. Cette localité, jadis vivier électoral très puissant et bastion du régime, est devenue un territoire incontournable. Sa départementalisation va induire un saucissonnage incontournable obligataire, le port autonome de Dakar a clôturé par anticipation la période de souscription obligataire par appel public à l'épargne. En fait, nous disent nos confrères du quotidien Le Soleil, le port de Dakar a récolté milliards de francs CFA euh, sur milliards recherchés et cela traduit la confiance sans cesse renouvelée des investisseurs au port et en la politique de l'État du Sénégal visant à mettre en place un hub logistique industriel au niveau régional. indique que le 20e anniversaire euh, du Forum sur la coopération économique sino-africaine a été célébré hier, octobre, une occasion saisie par les deux co de cette rencontre, à savoir le chef de l'État Macky et Xi Jinping, au moyen d'une lettre conjointe de réaffirmer la commune volonté de l'Afrique et de l'Empire du Milieu de sauvegarder l'esprit de solidarité et de coopération qui cimente leurs relations. Terminons par le sport battu au Maroc. frotte aujourd'hui à celle de la Mauritanie et dans ce derby palpitant contre une formation en net progrès ces dernières années, nos confrères du quotidien du Sport trouvent que les hommes d'Aliou Cissé n'auront pas droit à l'erreur avant la double confrontation des éliminatoires de la CAN 2022 face à la Guinée-Bissau en novembre. Donc ce soir à partir de 19h, ce sera un chaud derby à Thiès et les Lions sont contraints à la victoire pour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 Kourumba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 macha allah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire les Sénégal premier équipement et machine vous ont offert la revue de presse. Lorsque les autres visent Dakar, nous, nous allons plus loin. Sud FM vous installe au cœur du Toute la différence est là sur Sud FM. en mode majeur, les temps changent et le monde bouge. sudfm FM avec Sud Scène Radio.

La Catastrophe. journée de la prévention des catastrophes naturelles, naturelles Maria, mm. célébrée mmh. donc ce 13 octobre au cours des 20 dernières années. Euh, entre 2000 et 2019, en 7348 catastrophes naturelles ont été enregistrées près de 3000 milliards de de catastrophes. Dans un rapport publié hier lundi, un rapport qui signale également que 2 millions de personnes depuis 2000. Les pays en développement représentent 23% au total, donc du total des décès dus aux catastrophes. La Chine et les États-Unis sont les pays les plus touchés. Les catastrophes euh, les plus euh, fréquentes sont les inondations et les tempêtes, des épisodes de sécheresse, des incendies et des températures extrêmes ont aussi été, ont aussi euh, causé des ravages. Au Sénégal, les risques de catastrophes tournent autour des inondations, la sécheresse et l'érosion côtière. Un dispositif national de gestion des catastrophes existe, mais son application peine à être effective. Le torchon brûle au marché central aux poissons de Kaolack où des utilisateurs du marché central aux poissons donc euh, AMPAC accuse le concessionnaire et l'administrateur l'administration d'être à l'origine des difficultés que traverse le marché. Euh, selon ces marailleurs, de fabrique de glace et des machines de sont tombées en panne et ne fonctionnent plus. Des marailleurs qui ont également euh, dénoncé le recrutement abusif de 65 travailleurs et des arriérés de des factures d'électricité. L'AMAPOC euh, interpelle le ministre de la Pêche euh, sur la situation. Atundiaï, premier euh, vice-président de l'association des utilisateurs du marché central au poisson de Kaolack, est chargé de la communication de l'AMAPOC avec Mamadou Kamara. Euh, les machines du fabrique de glace qui est en panne. 17 ans d'existence, sans ratification, sans vérification, sans rien. Une machine qui roule 17 ans, vraiment il doit y avoir une épargne pour cette machine-là, pour que si il est tombé en panne, on puisse réparer. Mais depuis 17 ans, les machines sont en train de rouler. Il y avait un directeur, Serge Diop, qui avait qu'il va laisser pour les machines. Serge lui, pour les Madame le maire qui Le concessionnaire du marché central poisson de, de, il n'a pas fait son travail. voyez les routes impraticables. Tout cela, c'est à, cause du concessionnaire. Les, ventes parallèles. Là-bas, Khaïgui, il y a des ventes au parallèle au, au On peut pas arriver à résoudre cette vente-là. Et c'était une vente inutile. On l'a laissé comme ça. Le lasso, on appelle au ministre de, la Pêche et au président de la République de venir secourir le marché. Car l'État n'a jamais fait un fonctionnels. Maintenant, il ne reste qu'un seul machine. Les marieurs sont en train de payer leurs taxes, car les tabliers payent 250 par jour. Les, les, les voitures payent 3000 francs par jour. Les moulineurs, 150 francs par jour. Où est cet argent-là Où est cet argent-là Le gouverneur, on l'a écrit un correspondant. Le préfet, on l'a écrit un correspondant. Le maire lui-même. Toutes les autorités ont reçu nos correspondants. L'actuel directeur qui est c'est un intérimaire. Il a fait maintenant un an et cinq mois. Donc un an et cinq mois, le marché déroule sans directeur fixe. 65 personnes sont actuellement employées par ce marché. Vous voyez ce petit marché-là qui ne fonctionne que du poisson. Tout le recette du marché, c'est le poisson. S'il y a du poisson, le recette va augmenter. S'il n'y a pas de poisson, le recette va baisser. Et tu, tu oses amener 65 personnes pour les payer chaque, fin du mois, c'est trop. Atou Ndiaye euh, premier vice-président de l'association des utilisateurs du marché central du poisson de Kaolack euh, l'association qui accuse donc le concessionnaire et l'administration d'être à l'origine des difficultés que traverse le marché des allégations battues en brèche par le directeur par intérim du marché euh, selon Cheikh Ndaw il travaille avec des machines vétustes toutefois des efforts sont en train d'être faits pour gérer la situation Cheikh Ndaw directeur par intérim du de Kaolack s'explique au micro de Mamadou Camara. Eux, c'est les utilisateurs du marché aux poissons de Kaolack, c'est des mareyeurs. Moi, je l'administration. Le château d'eau fonctionne normalement. C'est l'usine de glace qui a des problèmes. Et l'usine de glace est installée depuis La dernière rénovation qu'on a faite, c'était en avec la coopération japonaise. Mais depuis lors, euh, le problème est là. On a un matériel complètement amorti. Chaque mois ou chaque deux mois, il y a des pannes. Ce qui a fait que les deux derniers nouvelle panne est déclarée. jusqu'à présent, les machines n'ont pas encore démarré. Mais la panne a été détectée et réparée. Maintenant, on a fait une commande du produit qu'on appelle ammoniac et nous n'avons pas encore reçu cette commande-là. Ce qui fait que l'usine ne marche pas pour l'instant. C'est pourquoi on a fait des projets, des projets de fabrique de glace et de mini-centrales solaires pour un peu alterner le courant de la Sénélec et le courant

directeurs qui se sont succédés ont recruté après avis du conseil de gestion. Donc au niveau des travailleurs, il a aussi bien euh, des éléments de euh, conseil de gestion, aussi bien au, niveau des autres services euh, l'ensemble de ces problèmes-là. Avez-vous des arriérés de euh, factures par rapport à la Ça, c'est de Daouda Faye. Mais je vais en profiter pour remercier la Sénélec qui nous a compris et qui nous accompagne, notamment son délégué régional, Chegal. Les Amazones de Castor se pour la réhabilitation de l'école Ibrahim Seck. L'établissement est dans un état de délabrement très avancé et est même surnommé école Mbalit par les élèves qui ne veulent plus la fréquenter. Ces Amazones ont besoin d'un montant de 6 millions de francs CFA d'ici la rentrée des classes. Elle interpelle les autorités locales, étatiques ainsi que les bonnes volontés. Amadou Moustapha Dia. nañu ko. une école délabrée une école délaissée l'école élémentaire Ibrahima Seck est même stigmatisée car elle a été rebaptisée école Mbalit une honte pour les élèves de la localité qui refusent de la fréquenter cette situation fend le cœur des Amazones de Castor qui se lèvent pour mener le combat de la réhabilitation de la rénovation mais aussi de la construction d'un centre d'enseignement professionnel dans l'enceinte de l'établissement ces Amazones qui ne peuvent supporter cette situation. D'où ce cri de cœur de leur présidente, Rokhaya Diop. Ça, c'est déplorable. Elle est dans une situation excessivement désastreuse. L'école est abîmée. Il y a des toilettes pour euh, des enfants qui n'ont de nom que de fessées. Les classes d'il y a ans sont restés identiques. Aucun changement. Les tableaux qui, y a 50 ans, ces tableaux sont toujours là. Ça, on ne peut pas l'expliquer. Ce projet est désormais porté par l'association Castor 3D qui en fait son cheval de bataille. Ainsi, les Amazones interpellent les ministres de tutelle, les autorités locales, les bonnes volontés et les valeureux fils du quartier pour trouver le financement de la première phase estimée à six millions d'ici la rentrée prochaine. Nous lançons un cri de cœur aux autorités étatique. Nous avons pris audience avec le maire, aussi au fils de Castor, pour la réhabilitation totale de cette école. Parce que nous voulons le pavage de cette école. Nous voulons reprendre les murs, mais surtout les salles de classe. Il n'y a pas de bancs. Vous vous rendez compte, monsieur, il y a des bancs où il y avait l'encrier. Ça, c'est à l'époque, notre époque. Ça, c'est inadmissible. Des audiences, des pétitions et une forte mobilisation sont pour le moment ces Amazones, décidées coûte que coûte à changer les choses et à faire revivre l'école de leur enfance, elles qui ont pour la plupart effectué leur premier pas de potache dans cette école vieille de plus de cinquante ans. Conférence de dénonciation, l'association des clients et sociétaires des institutions financières monte au pour exprimer son mécontentement en toile fond les nouvelles pratiques des institutions financières. des milliards euh, perdus euh, par les clients, euh, la hausse des services bancaires et l'escroquerie des cybercriminels donc euh, sont les principales causes de l'urgence pour l'ACIF d'alerter l'État, la Banque centrale pour une responsabilité des institutions afin de mettre un terme aux difficultés des clients. Josette Kali. L'association des clients et sociétaires des institutions financières crie au scandale face aux nouveaux tarifs imposés aux consommateurs par les institutions financières. L'ACSIF dénonce ces différentes hausses, des hausses qui ont doublé voire triplé et affectent les pouvoirs d'achat des clients. Famara Ibrahima Sissé, président de la dite association. Nous avons décidé de monter au créneau pour dénoncer cette situation. Les banques et les institutions de microfinance ont tous les services bancaires. La carte GAP qui est passée de 23 000 à plus de 40 000. Les attestations d'engagement et de non-engagement qui sont passées l'unité de 50 000 à presque francs. Les tableaux d'amortissement, les relevés de compte et tous les autres documents annexes au prêt qui devaient être gratuits sont aujourd'hui facturés. En le faisant, les banques sont en train de porter un coup dur et travailler. Il pointe du doigt l'irresponsabilité de certaines banques face à la montée de la cybercriminalité, de l'escroquerie. L'actif veut une meilleure protection des biens des clients. Ils disent oui à la sécurité de la bancarisation. Les cybercriminels ont envahi le système. De par la défaillance des systèmes bancaires, ils sont arrivés à pénétrer les comptes et à les vider dans l'impunité totale. Les clients sont en train de perdre des centaines de millions. Par conséquent, si le cybercriminel arrive responsabilité de la banque est largement engagée. Protéger les comptes, c'est pourquoi nous demandons à ce que tous les usagers qui ont été victimes soient immédiatement remboursés. L'ACSIF réclame dardard l'effectivité du report des échéances de crédit que les banques délivrent maintenant d'une autre manière. Que l'État prenne ses dispositions, que les Sénégalais bénéficient de ce report parce que ils ne pourront plus rembourser leur échéance. Et le président de la République en Conseil des ministres demandait aux banques et à la Banque centrale de veiller à ce que les crédits soient reportés de trois mois renouvelables. ce report. Mais nous sommes au regret de constater, après cinq mois du report, qu'en réalité, il n'y a pas eu de report. Ça, nous n'allons pas continuer à l'accepter. C'est pourquoi nous allons organiser des activités allant dans le sens de dénoncer toutes ces pratiques bancaires pendant surtout la période de l'inclusion financière. Le riz est arrivé à maturité dans les fermes de jeunes et femmes ont emblavé au moins 80 hectares. La récolte communautaire a démarré hier lundi. Le gouverneur de la région y a pris part et il soutiendra porter le plaidoyer pour euh, comment une moissonneuse batteuse soit positionnée à Kédougou. Boubacar Tamba. Faute de moissonneuses, batteuses et pour ne guère perdre une partie de la production, des jeunes et femmes ont organisé ce lundi une moisson communautaire du riz dans les fermes 1 et 2 de Kédougou. Des envolées lyriques et sons du Seoroba pour stimuler les centaines de travailleurs étaient de la partie. Serre Ndao, le gouverneur de Kédougou, a vu. Donc nous, nous confortons les maires dans ça pour que l'accès à la terre puisse être possible. Donc nous avons vu les champs, nous avons vu les superficies, 80 hectares qui sont emblavés. Je pense que c'est important. Et là, il faut des engins, il faut des matériels agricoles, des machines pour pouvoir récolter et cultiver ces champs. C'est pourquoi Nous allons mettre tout notre possible pour que, avec euh, Monsieur le ministre de l'Agriculture, parce que nous allons transmettre ce qu'on a vu ici, faire le plaidoyer auprès du ministre de l'Agriculture, mais aussi de la Sodagri et toutes les autorités qui peuvent nous accompagner pour qu'à Kédougou, qu'on puisse positionner une moissonneuse batteuse à Kédougou. Ça permet un peu de faciliter les travaux champêtres par rapport à la culture du riz et ça encourage les gens à aller vers l'agriculture. Et nous, notre plaidoyer, c'est que les gens diminuent leur paillage pour augmenter l'agriculture. Nous voulons que les gens allient les deux. Leur paillage arrête trois mois, on va cultiver. Après la culture, on revient vers leur péage. Voilà les deux leviers qu'il faut actionner pour booster Kédougou et pousser Kédougou vers le développement. À Kédougou, il est de plus en Les autorités administratives en ont fait un sacerdoce. Boubacar Tamba Sud-Afrique. Boubacar Tamba, le projet d'appui au développement de l'entrepreneuriat féminin de l'emploi des jeunes a organisé un atelier d'information sur la finance islamique à l'intention des femmes de la région donc de Matam. Ce type de financement euh, peu connu des femmes rurales euh, promet des crédits allant jusqu'à millions de francs CFA à condition que les activités soient en phase avec euh, l'islam. Abdourahmane Diène. Les femmes ont quitté ce lundi les zones reculées de la région de Matam pour venir assister à l'atelier d'information sur la finance islamique organisé par le projet d'appui au développement de l'entrepreneuriat féminin et de l'emploi des jeunes. Un type de financement peu connu selon l'adjoint au gouverneur Mamadou Ndoye. Il y le PADEF qui vient également en complément de ces actions étatiques pour faciliter l'accès des femmes au financement. Et la particularité du PADEF-EJ, c'est bien sûr la finance islamique. Comme vous le savez, c'est une opportunité qui est là, mais insuffisamment exclusivement réservé aux femmes peut atteindre un montant de 50 millions de francs CFA, à la seule condition que l'activité ne se démarque pas des canevas de l'islam, précise le coordonnateur Mansa Toutes les femmes, adultes ou jeunes filles, la seule condition, c'est que l'activité doit être conforme à la charia. Nous avons aller jusqu'à 500 000. On a un deuxième guichet qui porte sur la micro-entreprise où euh, les financements peuvent euh, atteindre 5 millions. Et la troisième dernière euh, catégorie, c'est la PME où les montants peuvent aller jusqu'à millions. Malgré le montant exorbitant des crédits, le PADEF-EJ n'exige pas des bénéficiaires un bien, un Dans la finance islamique, la première garantie, c'est le nantissement sur le matériel. Mais ce que je dois préciser, c'est que dans la première catégories où les montants peuvent aller jusqu'à 5 millions, 50 millions. L'unique, le nantissement le matériel. Le PADEF EJ compte s'appuyer sur ce relais afin que les femmes rurales aient accès au financement islamique qui ne demande que du montant de financement comme frais de dossier. Matam Abdurrahman Dien Sud FM.

c'est toujours très intéressant pour, euh, pour mon équipe, apprendre toujours. Et c'est dans ce genre de, de match qu'on apprend beaucoup. Et j'espère qu'on saura, euh, on saura faire bonne figure et faire un bon match face au Sénégal. Je vais pas vous dire qu'on vient pour perdre. <laughs> Il n'y a pas un entraîneur qui. Euh, on va essayer de. Je, je, parle rarement de résultats. Je parle surtout de nos intentions. Donc ce que j'espère, c'est que notre équipe sera sera à 100%, ne fera pas de, de complexe vis-à-vis du Sénégal, ce qui peut arriver parce qu'en face de nous, on a des de grandes individualités qui jouent dans les dans grands clubs en Europe. Donc euh, à nous de faire le maximum. Maintenant, c'est Sénégal, on sait que on sait que leurs individualités sont au-dessus des nôtres, Je vais pas vous dire que c'est une, mauvaise nouvelle. C'est pour nous bien sûr qu'on cherche à faire le meilleur résultat possible. S'il y a moins de, de, bons joueurs en face de nous, euh, tant mieux. Mais euh, chez nous, on a cinq absents aussi, donc euh, voilà, je pense qu'on sera plus diminué euh, que le Sénégal. Mais je vais pas prendre cette excuse. On va, on va chercher on sera 11 joueurs face à 11 joueurs sénégalais, donc on va faire le maximum pour obtenir un bon résultat. Écoutez, y a, on a quelques joueurs, c'est vrai, qui, qui, jouent sur du synthétique, mais euh, bon, euh, sur l'ensemble des, des, des, joueurs qui ont joué à, euh, euh, vendredi dernier, euh, il y en a peut-être euh, un, voire deux, qui n'a pas l'habitude. Donc la plupart des joueurs, il n'y aura pas d'exclus. La plupart des joueurs ont l'habitude de jouer sur, une pelouse naturelle, donc pour, surtout pour les expatriés que je parle. Donc on verra à nous de nous adapter. Et puis, euh, retenez que donc ce mardi, vous aurez les affiches Mali, Iran, Japon, Côte d'Ivoire, le Maroc qui va euh, donc rencontrer la République démocratique du Congo, Tunisie, euh, Nigeria également, Mexique, Algérie. Les euh, matchs Guinée-Gambie et Mali, Iran donc sont euh, annulés à retenir. Hier, euh, Togo euh, et Soudan ont fait match nul, un euh, le Ghana s'est imposé devant Qatar donc 5 buts à 1. Madagascar a battu Burkina Faso sur la marque de 2 buts à 1. Et puis, Assemblée générale de renouvellement du stade de Mbour prévue le 25 octobre prochain. Le comité des supporters fustige ce qu'il de manque de transparence dans la, de délaissés e ou laissés. Les euh, supporters euh, qui soutiennent l'un des candidats interpellent les autorités locales. Babacar Gueye, membre du comité supporter du stade de Mbour, au micro de Moustapha Sall. Bon, nous sommes aujourd'hui pour déplorer une situation qui est vraiment qu'on ne peut pas mesurer. Donc, vous savez, il y a de cela six mois, on est en de négocier pour la tenue de l'Assemblée générale du stade de Mbour, mais on sent très bien qu'il y a des hommes qui ne veulent pas que De ce fait, nous, le comité supporter de Bourg, du, du, SA de Bourg, nous avons un candidat qui est euh, Bay. Bon, tout le début, nous avons décidé d'aller pacifiquement vers les élections. On ne voulait pas de violence. Mais là, on ne sent pas qu'en Bourg, il y a des autorités qui sont ici présentes pour tenir correctement l'Assemblée générale. Bon, comment en fait un club comme SA de Bourg ne peut pas avoir de, bureau pour, préparer euh, correctement euh, le, le, le championnat. Franchement, nous voulons, nous lançons un appel solennel à toutes les autorités mbouroises, à savoir le préfet de Mbour, euh, le, le, commissaire de Mbour et le maire, le maire de Mbour, pour que l'Assemblée générale se tienne correctement dans les règles de l'art. Franchement, parle. Parce qu'on ne peut pas comprendre à chaque fois un comité qui bafoue les règles. Comment se fait-il auparavant C'est nous qui avons décidé de faire une Assemblée générale ouverte. Eux, catégoriquement la tenue de l'Assemblée nationale ouverte. Il nous avait proposé de faire 304 membres. Et en revanche, ils, ils, ils reviennent en ce moment pour nous dire qu'on qu fasse une Assemblée nationale ouverte. On ne sait pas ce qui se passe exactement derrière. S'ils veulent faire la politique, ils vont le faire ailleurs. Le Stade de Bourg, c'est un club de football. Nous sommes animés de bonne foi pour augmenter la qualité du, du, du club parce qu'on sait très bien que le Stade de Bourg en ces têtes-là, il ne veut pas les ça de mots. Ce qu'il avec euh, Gédio qui entame son stage en, novembre. Quatre joueurs sont annoncés sur le départ. Merci à vous, Babacar Sam. On vous retrouve à 9h pour euh, les brèves. Merci, chers auditeurs. Tout de suite, Mariam Aïda, euh, c'est dans Sud Éducation. Hey Nous sommes des enfants. Tenir un enfant par la main, l'aider à traverser les âges, à affronter la vie en toute quiétude. Sud Éducation, info, assister conseils pour encadrer au mieux les enfants dans leurs études, leurs loisirs et leur bien-être. Sud Éducation, la toute nouvelle émission de Sud FM en compagnie de Mariem et Aïda. Hey, tu lèves un genou, tu lèves l'autre genou et maintenant tu sautes.

Alors, le temps de qualité, je l'oppose à au temps euh, que l'on passe sans véritablement faire attention aux enfants. C'est-à-dire que on est, on là, on est dans le même espace, on est dans la même maison ou dans le même appartement, mais on n'est pas réellement ensemble. On est un peu comme juxtaposés les uns aux autres. Tandis que le temps de qualité, c'est le temps qu'on passe ensemble vraiment. C'est un temps d'activité avec ses enfants, c'est un temps de conversation, on est pas de visiteurs, il n'y a pas euh, la télévision, personne n'a son téléphone ou sa tablette en main, personne n'est en train de regarder en même temps autre chose ou d'écouter autre chose. C'est du temps que l'on passe réellement ensemble pour le plaisir d'être ensemble. quelles activités fait-on, peut-on faire avec ses enfants pendant ce temps de qualité Alors oui, c'est une c'est une question que nous, nous avons abordée énormément les activités à faire avec les enfants, mais là on est dans un contexte qui est un petit peu particulier puisque très souvent j'ai conseillé aussi de faire des activités en extérieur, de sortir avec ses enfants, c'est très enrichissant, mais aujourd'hui sortir, il faut vraiment éviter le faire uniquement quand on y est contraint et forcé et donc toutes ces activités que l'on pouvait éventuellement euh, a et qui ne demande aucun matériel, j'ai envie de dire, et qui ne demande aucune, aucun investissement financier, c'est parler. Euh, alors c'est parler, se raconter. Souvent des parents m'ont répondu, mais moi je ne sais pas quoi dire à mes enfants, je ne sais pas quel sujet aborder. Je suis, euh, voilà, je suis une grande personne et ce sont des enfants, je ne sais pas ce qui les intéresse, mais comment le savoir quand on ne les, euh, quand on ne les interroge pas justement. Et chacun devrait, les, les enfants sont très très curieux de ce que euh, font leurs parents, de ce qu'ils font dans la vie, de ce qu'ils ont fait quand ils étaient plus jeunes, euh, de ceux qu'ils ont pu euh, visiter, des villes dans, lesquelles ils ont pu vivre. Et c'est vraiment c'est ce que j'appelle se raconter à ses enfants. Euh, c'est parler de son quotidien, mais aussi parler de la famille, parce que qui n'apprécie pas de savoir euh, telle tante que l'on voit venir très souvent, mais quel est le lien de parenté avec cette personne Et sachant que nos familles sont très étendues, parfois on n'a même pas de lien direct avec cette personne, c'est extrêmement intéressant et important à raconter à ses enfants. On peut jouer, on peut jouer à des jeux de société, à des jeux un peu physiques. Quand on a la chance, par exemple, d'avoir un jardin ou une cour, on peut très bien jouer, par exemple, à cache-cache avec ses enfants. Pourquoi pas On peut raconter des histoires aussi. Et tout le monde n'est pas un compteur né, mais quand on a la chance de savoir compter, on peut très bien compter à ses enfants des histoires a, euh, qu'on nous a racontées enfant, mais on peut aussi lire des contes, tout simplement s'appuyer sur des livres. Et puis on peut regarder euh, la télé, ce n'est pas interdit tout de même, mais le faire en famille, c'est-à-dire choisir une émission, euh, un film, une série qui intéresse tout le monde et regarder tous ensemble la télévision on peut aussi écouter de la musique en famille, on peut danser ensemble, on peut pourquoi pas se déguiser, faire des séances photos. Donc il faut euh, se réinventer et réinventer ce temps-là tous les jours, mais il faut également y apporter une certaine réflexion et sa touche personnelle. Alors, c'est très difficile parfois quand on est parent euh, de se ramener au niveau des enfants, enfin de même descendre au niveau des enfants et de jouer avec ses enfants. C'est pas toujours évident, tout le monde ne sait pas le faire. Comment est-ce qu'on peut faire lorsqu'on trouve ça ennuyeux de faire des jeux d'enfants ou qu'on est tout simplement mal à l'aise parce que peut-être qu'on se trouve un peu gauche Alors en fait, euh, le, il faut d'abord comprendre que le jeu est très important pour les enfants et ça à tous les stades de développement de l'enfant jusqu'à la toute fin de l'adolescence et même l'entrée dans la vie adulte parce que le jeu c'est le moyen pour l'enfant de se sociabiliser, c'est le moyen d'apprendre à appréhender le temps, gérer sa patience ou son impatience, accepter le fait de perdre, collaborer avec les autres, élaborer des stratégies <clears throat> tout ça c'est très important dans le jeu et quand on a vraiment compris ça en tant que parent eh on peut s'astreindre un petit peu c'est-à-dire que être c'est aussi se, forcer à faire des choses d'autant plus que nous-mêmes nous demandons à nos enfants de se forcer à faire des choses puisque par exemple aller à l'école les enfants ne le feraient pas naturellement <laughs> donc ils se forcent et donc parfois il faut passer par se forcer faire le simplement s'enfermer dans les jeux que l'on connaît, il faut aussi aller à la recherche de jeux qui nous intéressent en tant que parents et dans lesquels on va trouver un certain plaisir à jouer. Donc il faut quand même chercher jusqu'à trouver. et les parents qui sont beaucoup plus âgés que leurs enfants, comment est-ce qu'ils peuvent faire

tâches, etc. Et puis ils doivent avoir eux-mêmes des passions et il faut essayer d'amener les enfants à s'intéresser à leurs propres passions aussi qui ne se connaissent plus, un manque de confiance en soi chez l'enfant et puis ça va aussi euh, figer les rapports des parents et des enfants dans les reproches, les ordres, les cris, les, punitions euh, ou alors les tâches ménagères, etc. ou alors encore des relations qui sont uniquement scolaires et qui ne tournent qu'autour Merci Mariam pour toutes ces précisions. Restez chez vous, ne faites que les sorties essentielles, respectez les gestes barrières et portez votre masque. À bientôt. Merci Aïda, à bientôt. Dakar, nous, allons plus loin. Sud FM vous installe au cœur du Sénégal. Toute la différence est là. Canal Plus mu ngi leen di ñaanal Sud FM. il est 8 juróom-ñetti ci Sud FM seen rajo yi ñu dalal ki nga xam ne moo di El Hadj Ibrahima Ndiaye sala El Hadj Malick Ndiaye salaamaaleykum El Hadj. waaleykum salaam sama ñu ngi lay ziar bu baax a baax ñaareel bi pàcc ci xibaar yi ci yaatal ñu tàmbali koog li nga xam ne moo di bés tey ñuy màggal lañ koy màggal muy journée mondiale des catastrophes naturelles ñu jàpp ne nag muy loo xam ne lu am solo la jëm nag ci wàllu prévention catastrophes naturelles yi yema fukki fan ak ñett weer octobre bi nekk ci ñaar fukki at yi ñu génn kat ci année lu toll junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk juróom ñetti catastrophe nemmeeku nañ ko ci àdduna bi yëpp loolu nag doo ko xaymaa ci koppar mu toll ci rek ñetti téeméeri milliards ci suñuy xaalis bureau national des nations unies pour la réduction des risques et catastrophes ci rapport boo xam ne nag da ko daal di génne ñu wax ci sagar bi xeeñ fële ca marché central au poisson bu Kaolack association des utilisateurs du marché central au poisson de Kaolack joxoñ baaraam tuuma concessionnaire bi nee na kooku defu fa dara moo tax ñu am ay jafe-jafe Pape Ibrahima Diaw kenn ci ñoom lay wuyu déglu ko ci micro kii di Mamadou kamara te mm-hmm. marché bi te convention bi li mu wax dafa leer article bi nga xam ne mooy article six dafa xam ne ouvrage la bi moo ko war a sàmm moo ko war a defar article bi dafa wax ne képp koo xam ne nii tey yaa ngi ci marché bi te liñ la dénkoon defuloo kon état dafa war a récupérer bi ñu seet ko jox wala mu yoral ko boppam marché bi yàqu parce que gis ngeen usine glace bi depuis un mois amuñu glace château d'eau bi quatre machines la doon doxee trois yëpp dañoo amoon aller am retour lépp sakk nañ ko joxe nañ ko ay place jox leen dafa am ñaari groupe yoo xam ne ñoom ñoo war yore marché bi muy conseil de gestion ak conseil de suivi conseil de suivi son président le préfet de de Kaolack te conseil de suivi boobu depuis 2003 bi ñu existé ba léegi ñaari yoon la conseil de suivi mas a am te conseil de suivi chaque année war nañ ko def benn yoon conseil de gestion chaque année war nañ ko def quatre fois depuis problème ñuy ñaan état du Sénégal mu ñëw récupérer waat marché bi parce que bijou la boo xam ne ci bijou sous région bi la bokk muy deuxième marché boo xam ne moo nekk ci Afrique à de Dakar kon duñ seetaan ñu def ci ay milliards ba pare ñu retourné ay nit ñëw fii di ko yàq loolu ko bu fekkente ne moom matale ko kon état du Sénégal daf ko war jël ouvrage yëpp yàqu na dara desu convention bi respecté wuñu ko yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk par marché parce que xam nga jën buñ koy wax glace moo tax parce que nit ñi nangootuñoo indi seen oto gis ngeen marché bi ni mu wéetee parce que amul glace ku fi indi jën amoo glace dafay yàqu ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir marché bii nga xam ne suñuy glace tey bi dañuy fay li fan lañ koy dugal nañ ko wax nit ñi deuxième bi ci topp booy tey usine glace bi ñi nga xam ne ñoo fi nekk dañuy dem di wër dëkk bi di jënd ay mbuusi glace beneen mooy usine glace mënoon ñàkk actuellement ci biir nit ñi ak population bi ni mu toll. Ah. fuite bu amee ñëpp am problème donc loolu dafa war a jeex ci biir marché bi kii di directeur général bi nag di par di Cheikh Ndaw indi ci ay leeral nee li ñu ko wax dara amu ci réglu ko ba tey ci micro Mamadou Camara panne am na fi mais panne bi amee tamit ba au mois de fin mois de septembre si la amaat beneen panne muy troisième panne bi troisième panne def na oo nañ ki nga xam ne mooy technicien a mais machine nekkul da ngay rek mën a démarré mais dafa am matière première boo xam ne moo koy doxal lu mel ni huile lu mel ni calcium ak lu mel ni ammoniac mais ammoniac moo amagul bi la ñëw di joxe ah, marier kenn ku nekk mën si gis nga a ko conserver bu baax a baax bi ak euh, euh, ko sos 2003 léegi am na personnel bu fi nekk personnel bu fi nekk buñ ne ñëpp 65 personnes lañ man loolu du jaaxal ñoom seen bopp am nañ fi ay ñoo xam ne ni ñu bokk si ñoom la 65 personnes yi ñuy wax personnel buy liggéey la ku am njëriñ ku amul njëriñ loolu lu ñuy xoolaat directeur moo am latitude recruter amul benn directeur bu fi mën a recruter te conseil de gestion jox ko ndigal euh, recrutement additif man ko fi donc problème marché central au poisson bu Kaolack mooy matériel bu amortir usine de glace moo tax bi panne yi amee ñun am nañ ay suñu projet yu dëgër yoo xam ne defar nañ ko am benn fabrique de glace déposé nañ ko au niveau du ministère le septembre on a rencontré le directeur de cabinet du ministère de la pêche en l'occurrence monsieur Fodé Fall ànd ak l'inspecteur départemental de pêche ñu wax ci Amazone yi nekk ca Castor nag jóg taxaw tem gi defaraat école Ibrahima Seck nekk ca Castor li nga xam ne nag moom moo nekk école mbalit ñoom kat dañ soxla toll ci rek juróom benn million ngir rek loolu nag mën a antu bëgg nañ nag ku leen ci jàppale rawatina autorité étatique yi ak tamit municipal yi dañ ci ànd ak kii di Amadou Moustapha Dieng xale yi da leen di wax sax mu ngi koy tuddee école mbalit yow école mbalit ngay jàngee vraiment bu màgget ba yegg ci lool école bu yàqu-yaxeet école élémentaire Ibrahima bi bile nekk fii ci Castor dem na sax ba ñu koy dàkkantelee école mbalit loolu lee di jur kersa ak gàcce ci xale yi kastoor yi nga xam ne sax bëggatuñu benn yoon jànge ci boobu leen lekkool lu ñu mel nag moo yëngal xolu Amazon yi nekk ci kastoor jamono jile lenn dong moo leen soxal moo di ñu daal di tabaxaat école bi daal di koy yeesal rakki dolli sax daa koy taxawal benn centre de formation professionnelle looloo tax fu mu nekk nii ñu tëgg seen i gémmiñ te di jooy bi la jooyu xool nañ ci déglu ndoo Ndoye di kenn ci Amazone yi. xool nañu daal ba gis ne école bi état bi nu mu mel daal neexuñu vraiment ñu jog ci nag ñun les Amazones pour defaraat école bi dégradation école bi vraiment boo ko gisee da mer sax billaahi vraiment. parce que lii écolu alentour yëpp bii moo ci gën a ñaaw moo ci gën a bon lu mu mel étam bi dégg nga vraiment c'est déshonorant loolu mënatuñ projet bi lee amazone castor yi lee wéetuñu si ndax kat waa association castor 3D ñëw nañu feelu leen ci xeex bi looloo tax fu mu nekk ni ña ngay woo ministère de tutelle yi autorité locale yi moo xam maire bi ak ñu mu àndal niki noonu bépp doomu castor boo xam ne am nga ndombu tànk wala teg nga dara ci réew mi te nga jaar ci école bi nga daal di ñëw dimbali leen ngir ñu yeesalaat école bi li fi ak école di ubbi koppar yi nga xam ne war nañ ko ci dugal toll na ci juróom million. nañ gis la maire dem ci autorité yeneen yeneen gis ministre bi ñu ngi ci daal ñu ngi taxaw nañ ci daal vraiment ñun daal fu mu ne nii moom suñu objectif mooy loolu bëgg nañu daal lu ñu ci wax nii ñu am ko avant le douze balaa xale yi di ñëw au moins wax leen état école bi tout soutien ci ñoom vraiment ñu jàppale mhm. ñu ay gisee gotaayu waxtaan ay audience ay pétition ba ki sax mobilisation bu am doole yooyu le ñooy gànnaayu Amazone yi nga xam ne taxaw nañu temm ngir soppi xar kanamu l'école bi le l'école bi nga xam ne lépp ci ñoom fii lañu tàmbalee seenum njàng juróom fukki at ci ginnaaw a ngi nii ministre si wàllu xibaar tamit ceeb bi nga xam ne nag euh, ñor na ci ferme yi ci Kédougou 1 ak 2 toll ci rek 80 hectares récolte communautaire ma door nañ ko démb gouverneur bi kat seen bëgg-bëgg leen rek la fexe nag bañ utal leen lii di moissonneuse batteuse dañ ci ànd kii di Boubacar Tamba. ñàkkum masinu góobukaay ak ragal a ñàkk lu bari ci seen am-am moo waral ndaw yeeg jigéen ya bay ceeb ci ferme une ak deux woote woon askanu tund moomu yépp altine ji ngir mën a góob ceeb bu ñox mi ndax ñu mën a génn sawax liggéeykat yi. bokkoon na ci lii. Saer Ndaw may gouverneur wu diwaanu Kédougou ci boppam ak ay ñoñom teg nañ ci seeni bët. ñu gisee jigéen ñi sawar ci ndaw ñu sawar ci war nañu ñun tamit def loo xamante ni dina leen gën a yombal liggéey te bu soobee yàlla dinañ taxaw ci loolu ba Kédougou am benn moissonneuse batteuse mais aussi ñu gën a accompagner parce que li gën a am solo mooy li nga wax sànq mooy production de semence bi loolu moo am solo parce que semence ci surtout ceeb ba semence bu baax bi dafa jafe boo amee kuy def multiplication multiplication semence dañ ko war a encourager gunge ko te bu soobee yàlla loolu dinañ ci taxaw teg ci suñu tànk parce que nekk te tey kenn du ñu nettali ndax ñoo gisal suñu bopp ku ne liggéey amul rek da ngaa bëgg que àll bu mel nii ay jigéen nekk ci di def lii ay ndaw nekk ci def ni kon liggéey am na fi Euh, mbay mooy loo xamante ni ba àdduna yi tukki du fi jóg te mën na yor am réew maa ngi wax léegi DRDR naka lañ mën a defee ci nu mu gën a gaawee ba ñu am mooy yu leen gën a jàppale te loolu aussi muy DRDR di autorité administrative yi préfet sous préfet gouverneur dinañ ci taxaw incha allah ba li leen war a accompagner ngir liggéey bi yomb dañ ko def mënuñu tout le temps ñëw leen bay te duñu gunge mm. ah, nit ñi ci li yombal mbay mi bu ñu bëggee jeunes yi aussi ñëw si mbay mi il ñu fexe mbay parce que mbay mi liy defar Sénégal ëllëg waaye li ma wóor te mooy liy defar Kédougou ëllëg ci mbay mi lay jóg kilifawu Kédougou yi moom suqali mbay mi doon na li nga xamante ni fasciné nañ cee xaar seen tànk tubéy Boubacar Tamba doon cee jokkoo fi ci Kédougou rajo Sud Afrique jërëjëf El Hadj Malick Ndiaye kon ñu ngi noonu la jaajëfal bu baax a baax xibaar la woon ñaareel bi pàcc yaatal fi laaw bi euh, fukki simili tegoo ci juróom-ñetti waxtu ajaratu Ndeye Mariam Ndiaye teewaat ci li nga xam ne moom la yéene kaay xëyee tey jële ci talaata ji fukki fan ñett ci weeru octobre 2020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 dara gënul neex saa bu may naan sama boisson punch ay goût yu bees neex lool ak parfum yu bari yi orange ananas pomme asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak punch cafka bii fi cosaano moo mën ci xew seen boisson punch moo leen di may li ci yéenekaay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 Saloum ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 macha allah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire les établissements Mbaye et frères. seen boisson punch ndox mu sell mi di waalo ak SPEM Sénégal premier équipement et machine ñoo leen di may seen revue de presse. Ndeye Mariam Ndiaye. Sénégal ku mbëri asalaamaaleykum mbokk yi déglu daleen ak jàmm weccante kaddu yi mujjee am ci diggante Ousmane Sonko ak Mansour Faye ak kaddu yi nga xam ne barke Demba Ndiaye la ko député bii di Aliou Dembourou Sow daal di fësal di woo mbokku Haalpulaar yi ngir ñoom ñëpp ñu yore seen i jaas yi fas yéene nag jàmmarloo ak képp koo xam ne buggoo kii di Macky Sall daal di fi am ñetteeli mandat kàddu yi ni mel bii di Sud Quotidien nen kàddu yi ni mel ak yeneen yoo xam ne jotoon nañ ko fee dégg loolu de warul ñi nga xam ne tey jii ñoom ñooy yëngatu ci wàllu politique ndaxte la firndeel moom mooy ne amuñu lu am solo loo xam ne war nañ cee mën a sukkandiku di ci waxtaan di ci débat ñoom koy déedéet xastante ak i ngañante la ñuy faral di gën di def li sax ancien ministre bi di Abdou Aziz Tall njëkk na xarlo ci biir colikaay bi di Sud Quotidien ndaxte daal di ne xamle ne coow li ni mel nag baaxul ci république bii di Sénégal baaxul ci nguur gi baaxul ci ñi nga xam ne ñoom ñoo koy faral di fësal docteur Momar Thiam nekk docteur en communication politique nekk ki jiite école des hautes études en information et en communication moom daal di gis ni li waral nag ñuy faral di nemmeeku kàddu yu teguñuwul yooyu ak tamit kàddu yu amul benn fulla yooyu moom mooy ne léegi moom li ñuy tuddee école de parti amatul fenn ndaxte ci école de parti yooyu lañ doon jàngal ñi nga xam ne ñoom ñooy militant yi lan mooy njëriñ ci ab république ak tamit nan lañ ci war a waxtaanee ba léegi ci kàddu yooyu nga xam ne kii di Aliou Dembourou Sow daal dina koy fësal Abdoulaye Thiam daal di xamle ci biir colikaay bii di Sud Quotidien ne kooku moom war nañ koo arrêté ndaxte kàddu yi fësaloon ñoom ñooñu di waa Sud Quotidien bokk nañu nag euh, ci ëttub euh, tasub xibaar yi nga xam ne dañoo beñoon daal di koy fësal ndaxte kàddu yi ni mel mën naa yee fitna moom moom di Abdoulaye Thiam di gis ne ba ñu ko defee nekkite yoo moom dem na ci beneen ëttu yëglekaay daal di fay wax kàddu yi ni mel ñooñu daal di koy fësal loolu kon day fexndeel ni ki nga xam ne de moom mooy Aliou Dembourou Sow moom de war nañu ko arrêté ci ni mu gën a gaawee te ci kàddu yi nga xam ne moom la daal di fësal ëttu yëglekaay bi di direct news ne la ca gën a yéeme moom mooy ne amul kenn koo xam xam ne tey jii de mi ngi nekk ci boppu réew mi koo xam ne da nga kaa naqarlu usman Sonko daal di ne jëlati ay di jëm maamu xeer sànni ko nag ki nga xam ne de moom mooy Macky Sall jolikaay bii di Vox Populi mi ngi ñu xamal ne Sonko démb moom ci ab luubalu suuf la daal di joxoñ tuuma ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi ndaxte Ousmane Sonko ma ngay xamle ci biir jolikaay bii di Vox Populi ne Macky Sall dafa jaay yenn ci ay immeuble yoo xam ne moom moo nekk ci xolu Ndakaaru laas yenn kaay ma ngay dëggal li ni mel ndaxte ñoom ñu nga daal di fësal ci seen seen xët bu njëkk ne kii di Ousmane Sonko gis na ne nag benn dil bu mag benn luubal daal am na te njiitu réew mi nag moom moo ko fi amee ndaxte dafa daal di jaay ay immeuble rawatina nag immeuble bi nga xam ne moom moo nekk immeuble bi jàkkaarloo ak assemblée nationale autolikaay bii di tribune ñu tamit ay appartement njiitu réew mi jaay na ko ak tamit ci lu tolloo fukk ak juróomi hectares yi nga xam ne moom moo nekk fële di terme sud foofu moom dañu ko jaay ngir daal di fay taxawal seen benn projet wante ci Yaya Abdoul Kane nekk directeur de l' agence de gestion du patrimoine euh, bâti moom nag daal dinay weddi tuuma yooyu nga xam ne Ousmane Sonko euh, teg na ko ci ndoddu nguurub Sénégal moom muy daal di xam ne ni Ousmane Sonko amul xibaar yëpp yi nga xam ne nag moom mooy tax bu mu daal di euh, jëkkati tuuma yi ni mel ndaxte mbir yi demeewul noonu enquête yéen kaay tey jii daal di def ab gëstu gu yaatu jëmale ko nag ci diwaan bi di Kër Massar mi nga xam ne dañu ko bëgg a def mu nekk département jolikaay yi di waa APR ñoom ñoo fa mës teg seen tànk Kër Massar nekk na it ab gox woo xam ne bu yaatu la te nag tey jii suñ ko waree def mu nekk ab département kon dina am yenn ci ay diwaan yoo xam ne ñu ngi bokk ci Pikine wala bokk ñu bokk ci diwaanu Tëngéej yoo xam ne daal dinañu leen taqale ak Kër Massar port autonome de Dakar lu ñuy tuddee emprunt goo xam ne ñoom ñu ngi ci doon séntu ñu am ci juróom benn fukki milliards wante nee nañu nag sama jëntal ga juróom-ñeent fukki milliards ak ñeent lañ ci jot a am loolu sax moo tax ba ñu teel kaa tëj autolikaay bi jëla soleil ne loolu kon day fi firndeel ne ñiy dugal seen koppar fii ci biir réew mi ñoom wóolu nañu nag waa port autonome de Dakar te it am nañu yaakaar nag ci investissement yi nga xam ne dañ ko fee bëgg a amal fii ci même réew ba léegi ci biir colikaay bi di Le Soleil suñu naataango yi nag di ñëwaat ci diggante bu rattax bi nga xam ne moom moo am ci diggante réewum ñaari njiitu réew yi sax tey jii lañ ko gën a dëggal jeexale ko ak wàllu tàggat yaram di ñëw ci jongante xaritoo bi nar am tey si ngoon ci diggante réewum Sénégal ak Mauritanie ci diwaanu Thiès dañ ko fas yéene amalee suñu naataango yi nag di ñu xamal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 ah dara gën a neex saa bu sama boisson punch ay goût yu bees neex ak parfum yu bari yi orange ananas pomme mangue coco limonade ak cola punch cafka bii fi ci sànno moo mën ci xew seen boisson punch moo leen doon may lii ci yéenekaay yi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 Mbuurum ba nokk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 macha allah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire. les établissements mbay et frères seen boisson punch ndox mu sell mi di waalo ak SPEM Sénégal premier équipement et machine ñoo leen doon may seen revue de presse. ñu àndoon ci ak ajaratu Ndeye Marieme Ndiaye ginnaaw bi ñaar fukki simili ak juróom tegoo di Marieme ak Aïda ci Sud Éducation. Sud Tenir un enfant par la main, l'aider à traverser les âges, à affronter la vie en toute quiétude. Eh, Sud Éducation, info, assisté conseil pour encadrer au mieux les enfants dans leurs études, leurs loisirs et leur bien-être. Sud Éducation, la toute nouvelle émission de Sud FM en compagnie de Mariem et Aïda. tu lèves un genou, tu lèves l'autre genou, et maintenant tu sautes. Hop. mbokk yi déglu asalaamaaleykum dal leen ak jàmb ci suñu numéro 86 bu Sud Éducation ni koy defee saa su nekk maag Mariem ñoo bokk plateau bi Mariem asalaamaaleykum. wasalaamaaleykum Aïda. Mariam tey loo ñu indil ci waxtaan wi. ah tey nag nga xamante ni euh, réew bi dafa xaw a jaxasoo ñu nekk ci benn euh, époque boo xamante ni dañuy wax ñu toog suñu kër euh, bañ a génn dafa nekk benn temps boo xamante ni dañuy dañuy toog du bàyyi suñu kër ak suñu ay doom suñu waxtaanu tey nag di di jëm ci wàllum temps boobu ñuy passé ak suñu ay doom naka lañ ko naka lañuy def ba mu nekk temps bu am maanaa bu am solo. waaye temps bu am maanaa ak temps bu am solo Mariam loo ñu bëgg a wax exactement. ah xam nga mën nga toog ak sa doom yendoog moom euh, te ngeen nekk ci benn kër gi benn bërëb bi te pourtant doo leen wax doo waxtaan doo leen foo doo def dara dafa nekk rek da ngeen nekk yéen ñaar ci benn bërëb euh, temps boo xamante ni dafa am maanaam mooy boo xamante ni yow temps bi nga nekk ak sa doom da di def dara loo xamante ni dina ko indil dara moom dina ko dina dina ko indil ay ngëneel te nag euh, temps boobu mën na nekk temps boo xamante ni mën nañ ci def benn activité mën na nekk foo mën na nekk togg mën na nekk waxtaan mën na nekk di déglu sa doom aussi parce que suñu ay suñu ay doom am na yu bari yoo xamante ne dañu koy bëgg a dinañ ko dinañu bëgg a wala ay ndigal yoo xamante ni bëgg nañu jox leen bëgg nañu ñu jox leen ko euh, loolu yëpp mu nekk benn temps boo xamante ni nag duñu seetaan télévision duñu nekk di déglu rajo wala di déglu musique wala duñu nekk ay gan ñëw ak mm-hmm. yooyu yëpp nekk benn temps boo xamante ni vraiment xale bii rek lañ ko consacré moom lañ ko may mais ci yaatal est-ce que mën nga ñu citer yeneen activité commencé nga ko tuuti sax mais dama bëgg nga yaatalal ma ko tuuti wax ma activité spécifique yoo xam ne mën nañ ko def ak xale yi mu xam ne di leen indil dara indil ñu dara sax ñun ci suñu bopp ah bi njëkk nag ci activité yi mooy activité bi nga xamante ni cherul da soxlawoo jënd da mooy toog waxtaan ak sa doom mën nga mën nga ko raconter ay sa ay histoire yow sa temps xale yow bi li nga doon def bi nga nekkee xale ban école nga nekkoon euh, ay bêtises say xëy na sax yow doon def ay punition yo yo yu ñu la yu ñu la joxoon ak euh, loolu yëpp mën na nekk ay euh, ay sujet waxtaan ak suñu ay doom mën na nekk itam di waxtaanee suñu liggéey ndaxte ay sunu ay doom yu bàyyi soo seetloo bu baax duñu xam lan la seen ay waajur di def soo leen laajee sa papa lu muy def sa yaay lu muy def duñ ko sax xam ne xam nañu daal dina xëy di gont mais xamuñu lu muy def léegi nag di ko expliquer ban liggéey la ñu def naka la ñu def ba ba jàng liggéey boobu métier boobu euh, yan étude la ñu def wala ak suñu jaar-jaar mhm. exactement loolu yëpp ak aussi di leen expliquer tam loolu am na am na solo lool surtout ci suñu culture ak suñu tradition mbokk yi naka la demee seen tante bi ñuy gis fii seen umpaañ bi bi si seen ndijaay tel naka naka la mbokk expliquer ba nga xamante ni sax justement euh, toppatoo mboq boobu ñu leen koy transmettre ñoom tam suñu màggee ñuy ñuy continuer di dox mboq comme ni ñu koy waxee. te nag aussi mën nañu euh, fo ak suñu ay doom loolu tam wax naa ko ci ay émissions yu bari euh, te fo dafa am ay dafa am ay façon yu baree bari mën na nekk ay jeux de société yu ñuy jënd comme ay Scrabble ak Monopoly mais jeux de société yooyu la ñu gën a xam mais am na yu baree bay ay façon am na ay façon yu bari jeux de société ay jeux de cartes yu bari lu lu bari lay indil xale yi dina leen indil naka la ñuy euh, naka la ñuy réfléchir am ay stratégie euh, loolu yëpp dina am na ay ngëneel yu bari yu nekk ci jeu de société te tam mën nañu jou mën nañu fo ak ñoom di par exemple sax jël benn ballon jouer football ak ñoom wala basket wala euh, jouer li ñuy di di kii cache cache maanaam di làkkatu mu leen mu leen di seet wala ñoom ñu làkkatu ngeen di leen seet am na tam yeneen yeneen façon activité comme lépp ndaxte lépp tam ci sunu ci sunu tradition ci suñu aada la bokk waaye su fekkente ni ñun mënuñu sax lépp ndaxte ñëpp mënuñu lépp mën nañu sax jënd ay livre di leen liiral ay histoire seetaan télévision tam activité la ak suñu ay doom ñu choisir benn film wala benn émission wala benn série bu leen neex ngeen toog seetaan ko yéen ñëpp ak famille bi tam loolu ndam nekk na benn benn temps bu am solo bu ñu mën a passé ak suñu ay doom mën nañ tam lo di déguiser wu jël ay photo waxtaan reetaan loolu yëpp mooy temps de qualité daal waaye xam nga yombul toujours euh, Mariem que ñuy fo ak suñu doom yi xam naa raconter sax di leen wax mbokk geeg yooyu loolu mun naa yomb mais fo bi euh, dem peut-être di dem di jouer ballon ak ñoom di jouer cache-cache yow mun naa bañ a yomb pour ñëpp wala xëy na dafay daal dañuy naan xaw ma naka laay fowee loolu na nga mën a conseiller parents yi def loolu et quest que lu ñu mën a def. ah li njëkk mooy ñu déjà ñoom ci seen bopp ñu xam ni euh, fo fo ci boppam dafa am solo ndaxte am na ay waajur yu bay yoo xamante ni dañu foog ni fo dafa nekk dara loo xamante ni amul benn mm-hmm. importance et que koy def soo amatul dara dara loo def ba sax parfois dañ koy tere seen ay doom alors que boo xamante ni du fo xale boobu mënul sax réussir mm-hmm. école ndaxte fo dafa dafa bokk ci développement am te bés bu nekk bës bu yàlla sàkk il faut mu fo ci biir bës boobu mm-hmm. il faut mu am benn temps boo xamante ni même su fekkee xamante ni na temps bu muy jàng il faut que mu am ni dina ci léegi soo soo demee ba xam loolu ba accepté ko nangu ko di nga xam ni fo ak sa doom dafa am solo te nag waajur du de du mënul nekk topp bànneexam toujours loo di nga gis loo xamante ni yow il faut force nga def ko même su fekkente ni neexu la même su fekkente daf la metti ndaxte xëy suba di liggéey sax loolu tam dafa metti mais pourtant comme il faut ñun tam ñu dem di liggéey dañuy forcer suñu bopp pour liggéey suñu doom yi tam dañ leen di jàngal ni dañuy forcer seen bopp di def yenn yi comme par exemple dem dem jàngi neexul xale yëpp mais dañ leen di forcer jóg julli neexul xale yëpp mais dañ leen di forcer te donc ñun ci suñu bopp tam dañu war a am discipline di forcer suñu bopp di def yenn yi te fo ak suñu doom dafa bokk ci yar suñu doom lool moo tax ñu war a forcer suñu bopp di di di ak ñoom te nag aussi su fekkente ni fo yi nga xamante faw di leen jëndal ay fowukaay yoo xamante ni ñun tam mën nañu intéressé ba ay jeu comme jeu de yi ni ma ko doon waxee sànq dafa bari ay façon mën nañ ci leen daf ñu intéressé te ñiy ñiy fabriquer jeu de société yi sax ñoom ci seen bopp léegi dañ ciy xalaataale waajur yi pour que ñoom ci seen bopp suñuy fo ak seen ay doom mu mën leen neex mais Mariam am na ay parents yoo xam ne te bari na waajur yoo xam ne li ñu màggee seen doom yi dafa bari écart bi dafa bari parents yooyu loo leen di conseil ah am na sa dëgg dëgg la am na ay waajur yoo xamante ni dëgg-dëgg ñoom sax mat nañu maam seen doom mais ñooñu seen avantage mooy que mën nañu waxtaan aussi yenn waxtaan yi mën nañu lépp mën nañu raconter seen bi ñu nekkee xale loolu yëpp dafa dafay nekk benn avantage boo xamante ni ay ay waajur yoo xamante ni dañu teel a am doom loolu ñoom duñ ko mën a def. Mm-hmm. léegi xam nga ak temps yu normal normaux yi sax euh, xam ne xam naa weekend beeg yooyu la ñuy peut-être am temps toog ak xale yi peut-être un peu le soir du bari mais fi mu nekk nii ak mbas mi. Euh, temps bi xale yi nekk ci ga dafa gën a bari ndax jàngeetuñu parents yi am na ñoo xam ne sax liggéeyatuñu malheureusement am na a consacrer xale yi ci bi da nga waxtu lay doon ñaari waxtu noo ko mën a natte ah man mën naa ni que par exemple benn mu mën a bàyyee rek loolu moo la gënee hmm. mais su fee mais su fekkente ne amuñu benn jot mais au moins benn waxtu ci biir ci biir jour bi nga xam ne bi quand am na ñaar fukki waxtu ak ñeent suñ ci jëlee benn waxtu pour accorder ko suñu ay ay doom loolu moom baax na mën na nekk aussi temps bi nga xamante ni ci la ñuy lekk euh, nga xam ni mooy temps bu ñuy partagé ñun ñëpp ci ci biir famille bi euh, xale yi waajur yi ñi dëkk ci kër gi yëpp te duñu duñu taal télévision duñu taal rajo nekk vraiment benn temps boo xamante ni dañuy waxtaan Euh, xam naa ne nag bis bu ne nga saa su ne di ko wax ci émission bi yow transférer responsable lu war waajur rek dafa war a war waajur la war est-ce que bii moom bu fekkee ne vraiment fo bi mënoo ci dara bu fekkee am na lu la dal ak yooyu est-ce que mën nañ transférer loolu beneen nit di ko def à ta place. ah c'est sûr que beneen nit mën na passer temps ak xale ma ñi koy jàngal ñu ngi ñu dinañu passer temps ak moom wala sax ay nunu yi ak yooyu yëpp mais bokkul ak temps bi muy passer ak ay papa papaam ak wala wala yaayam donc ça veut loolu dafa nekk dara loo xamante ni mënoo mënoo ko transférer fekkente ni euh, par exemple dañu dañu feebar wala da dañu dañu voyager def day lool daal temps boobu suñu doom perte na ko. Euh, léegi ci tënk Mariem bu fekkee ne amuñu benn temps bu ñuy passé ak xale yi loolu lan la mën a wàññi xale bi. ah xale bi dina ko wàññi euh, euh, malheureusement lu bay ndaxte euh, xale boo xamante ni du passé benn temps ak ak ay waajuram dafa dafa nekk benn xale boo xamante ni du xam sax est-ce waajuram yi bëgg nañ ko vraiment dafa foo foo ko fekk daal mu ngi laaj boppam est-ce que bëgg nañ ma est-ce que dinañ ma namm ak yooyu na te dafay fekk seen rela relation am ak ay parents am dafay nekk ay relation rek defal lii duggal fii ay tere ay punition su fekkente ni relation bi loolu rek la xale bi du mën développé wu bu baax ba xam ni euh, que ni parents yi dañ ko dañ ko bëgg te xale noonu lay développé wu bu baax pour que bànneexam mat il faut mu wóor que ni ay waajuram dañ ko bëgg. jërëjëf Mariam ci éclairage yi fagaru moo gën feju moytu leen mbas mi moytu leen coronavirus bi te ngeen takk seen masque wàññi génn yi wàññi groupe bañ a te ngeen wàññi lépp asalaamaaleykum. jërëjëf Mariama Gaïda bu ko defee rek ñu daal di wéy ci Sud Matin ànd nag Marie Rosalie Ndiaye mi ñu yóbbu tey foofee ca Fatick ngir rek euh, district sanitaire yi nekk foofu ak région médicale bi dañu leen a jox euh, ay kit sanitaire yoo xam ne ngir xeex li nga xam ne rek amoo di Covid 19 Marie Rosalie Ndiaye Info Santé.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 asalaamaaleykum mbokk déglukat yi Wetlands International moo jàppale juróomi district sanitaire ca Fatick ak région médicale bi a jagleel leen ay kiit sanitaire ak kiit koppar goo xam ne toll na ci ñetti millions ngir jàppale nguur gi ci xeex gi muy xeex mbas mi di Covid 19 ONG bi nag dafa tànn ay relais communautaire ngir ñu wasaare ab campagne de sensibilisation bu mag a mag ci yooyu la dëkk Yaxya Gueye nekk ca bureau bu Wetlands ca Fatick ci micro Ngor Sarr. Euh, li def tey mooy euh, li jiitu ci suñu plan d'action action Covid noonu lañu ko tuddee plan d' action Covid 19 bi nga xamante ni mi ngi judd si partenariat diggante Union européenne Wetlands International ak euh, IUCN si paysage bi di Grand Saloum ñu jàppale gouvernement bi ci effort yi nga xamante ni moom la nekk di def ngir dimbali nit ñi pour ñu mën a fegu ci wàllu feebar bi bokk na ci ay masque lu mat euh, ñetti junni euh, bokk na si fukki carton ak juróom eau de mu mat daanaka junni bouteille tey de ak junni bu tey yi nga xamante ni ay kii la ay gel Euh, pour raxas loxo yi donc lool la ñu ñëwoon distribuer tey ñi ngi koy jox nag mooy juróomi district sanitaire benn Mbour euh, ñeent yi nekk Fatick ak région médicale bi nga xamante ni moom moo coiffé euh, région bi donc loolu la ñuy distribuer tey fii nii Wetlands International juróom benn weer wala juróom ñaari weer ngi nii yi nga xamante ni Covid 19 bi dafay lëmbee ci dëkk bi moo tax ñu ne nañu jël xaalis boobu tuuti ci wàllu communication ñu reversé ko ci activités ni ba léegi communication lañ ko tuddee ak Casamance am na yeneen yu ndax campagne sensibilisation yi nga xamante ni euh, war nañu koo def ci delta du Saloum bi yëpp. li tax ñu tànn yooyu district nag moo di ne li leen mbas mi laal dafa bari lool te ñu bëri dañ cee mujjee ñàkk seen bakkan lu ni mel nag moo tax ñu bëgg leen a jàppale fexe ba gën a ñoŋal lu ñu duppee engagement communautaire Daniel Ndeki nekk responsable bureau régional bu éducation et information pour la santé ñu teewlu ko ci micro Ngor dañu ne dañuy jóg pour xeex feebar muy coronavirus biir région de ñu décidé appuyer le département Fatick ak département Foundiougne si département Fatick district sanitaire bu Fatick ak Diofior ak district yoo xam ne ñoo ngi si département de Foundiougne ak la région médicale lu rëy la dina permettre région médicale en fonction des des besoins pour ñu gën a euh, vraiment appuyer euh, les autres districts yi xam ne bénéficier ñoo si si kii bi dañu mën a bénéficier à la région médicale parce que activités yi ñuy def yaakaar naa ne ñoom ñëpp dañu mën a bénéficier Euh, am na technicien de santé ñoo leen orienté parce que boo xoolee par rapport aux statistiques région bi euh, ñaar département yi ñoo gën a am ay cas département Fatick jiite ak département fu ñu mën mën global c'est surtout euh, aussi bien pour cas positifs yi ak cas décès communautaires yi ñu am donc si deux départements yooyu la dañoo gën a kii donc c'est un département c'est un choix que nous saluons dañu am yaakaar ne dina gën a contribuer xeex bu ñuy xeex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 Sud FM en mode majeur. Les temps changent et le monde bouge. Sud FM, Sud Radio. Sud FM en mode majeur, les temps changent et le monde bouge. Sud FM avec Sud FM Scène Radio.

Sud FM référence la ndax kenn mosu koo dégg ci ay diffamation ak yeneen affaires yoo xamante ni daal information bu wóor daal la yor ndax ñi ko jiite tamit ay responsable lañ macha allah tubaarkàlla bàyyi nañ xel tamit doomu aadama sàmmante nañ ak seen éthique ak déontologie bi nga xamante moom la ñuy wax tubaarkàlla daal yàlla na yàlla dolli seen sutura ginnaaw biñ ko sampee fii ci bët saalum réew mi première rajo privée du Sénégal noppiwul di bégal ñi nga xamante ni askan bi fekk baax fii. presque rajo yi privé si FM moo ne suma rajo. Sud FM vraiment fu mu ne nii man kontaan naa ci seen programme. parce que yu bëri ñoom ñoo ñu ci gën a yee. yu bëri ñoom ñoo ci gën a ñaax. macha allah parce que Sud moom wax dëgg yàlla kontaan nañu programme yi neex nañu. ndax moom mooy rajo ndey rajo yi. moo jékki ci rajo yi te moom bu mu ñëwee ba léegi bu ngay déglu information moom bu la taxee jóg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg jàppal si defem euh, seen journal boo ko déglu journal bu complet la. revue de presse aussi bëggoon naa ci wax euh, félicité ci sud parce que bokk nañ ci groupe yi nga xam ne véritablement seen revue de presse boo ko déglu xam ne lii la ñuy séntu ci ab journaliste bu responsable ab groupe bu responsable ci wàllu revue de presse. dëgg yàlla man rajo Sud FM ba ñu ko ubbee ba nëgë ca jamono ñoom Ablaye Sakho Faye ñoom Reine Marie Faye dégg nga ñoom euh, pap Fall dégg nga bari daal ancien yëpp fa ñu fekk waaye rajo la boo xam ne rajo royuwaay la parce que rajo li ci gën am solo mooy di joxe information yu dëggu information yoo xam ne yi dañ koy jël si source bu leer nga xam ne loo fa déglu jarul ngay laaj laajte feneen parce que ñoom ci yoon lañ koy teg. lu yàgg dëgg la wallaay lu yàgg dëgg la. Sud FM de bi mu juddoo ba tey jii 94 ba léegi ñu ngi ak moom suñu rajo du fay guddeeg bëccëg zéro faute daal Sud FM daal zéro faute. Sud FM Dakar mi ngi déglu Sud FM Dakar Faire de chaque Sénégalais, où qu'il se trouve au Sénégal, un auditeur privilégié de notre réseau. Notre philosophie.